Luk saar benn. walla ci lindiin di xabaar bu baax bi ci almasi bi yéesu ni ko yàlla jaarale ci luk yow tewufil filmu tedd mi xam nga ne nit ñu bari sosoon nañu bind ab nettali bu jëm ci mbir yi xewoon ci sunu biir li dëppook waxi seede yi ko teewoon li dale ca ndoorte la te ñu mujj nekk jawriñu kàddug yàlla léegi nag kon man ci sama wàll gëstu naa ci lépp li ko dale ca njaalbeen ga te fas la ko yéene bindal nettali la ni xew-xew yooyu deme woon tembe noonu dinga mën a xam ne li ñu la jàngaloon lu wér péng la ca jamonoy erod mi nekkoon buur ca réewu yawut ya amoon na saraxalekat bu ñu tuddee sakariya te bokk ca mbootaayu saraxalekat ya askanoo ca abiya jabaram elisabet askanoo moom itam ci aarona sakariya ak jabaram ñu jublañu ca kanamu yàlla di topp ni mu ware ndigal yi ak dogali borom bi yépp waaye amuñu doom ndaxte elisabet mënula am doom te it fekk ñoom ñaar ñépp ay màggat lañu benn bés nag sakariya doon def liggéeyu saraxaleem ca yàlla ndaxte mbootaayama aye keroog bi ñuy tegoo bant ni ko saraxaleket yi daan defe naka jekk ngir xam kan mooy dugg ca barab bu sell ba ca kër yàlla ga ngir taal fa cuuraay bant ba tegu ci sakariya ca waxtu wa ñuy taal cuuraay la mbooloo maa nga woon ci biti di ñaan noonu benn malaakam borom bi daldi feeñu sakariya taxaw ca féeteeg ndejooru saraxalukaay ba ñuy taal cuuraay ca kawam naka la ko sakariya gis fitam daldi dem mu waaye malaaka ma ne ko bul ragal dara sakariya ndaxte sa ñaan nangu na elisabet sa jabar dina la jural doom te dinga ko tudde yaxya sa mbég lay doon sa xol sedd ci te ñu bari dinañu bég ci juddoom ndaxte dina nekk ko màgg ca kanamu yàlla du naan biiñ walla dara luy màndil te bu juddoo xel mu sell mi daldi ko solu dina delloo ci niti israel yu bari ci yàlla seen boroom mooy jiitu di yëgle ñëwu boroom bi ànd ak xel mi ak doole di yonent yàlla iliyaas amoon ngir jubale xoli baay yi ak doom yi ngir delloo ñi déggadi ci maandu teeg ñi jub noonu dina waa waajal mbooloo muy teeru boroom bi sakariya daldi ne malaaka ma nan laay xame ne loolu dëgg la ndaxte mag la te sama jabar it màggat na malaaka ma tontu ko ne man maay jibril mi taxaw ci kanamu yàlla dañu ma yónni ngir ma wax ak yow te yégal la xabaar bu baax boobu léegi nag ginnaaw gëmuloo li ma wax dinga lu te dootuloo mën a wax ba sama wax di am bu jamonoom jotee fekk na booba mbooloo maa ngi xaar jaaxle lool ci li sàkkariya yàgg ca barab bu sell ba waaye bi mu génnee nag mënula wax ak ñoom noonu nit ñi xam ne dafa am lu ko feeñu ca barab bu sell ba dafa lu ba di leen liyaar bi sakariya matale liggéeyu saraxaleem ba noppi mu daldi ñibbi bi mbir yooyu weesoo elisabet jabaram ëmb di ko nëbb lu mat juróomi weer te naan lii mooy yiw wi ma borom bi defal ba fajal ma li doon sama gàcc ci nit ñi bi elisabet nekkee ci juróom benn weeram yàlla yónni na malaakam jibril ca dëkku nasaret ca diiwaanu galile mu yebal ko ca jàng bu ñu may waa ju bokk ci askanu daawuda te ñu koy wax yuusufa waaye ànd guñu janq baa ngi tudd maryaama malaaka ma dikk ca moom ne ko jàmm nga am yow mi boroom bi defal aw yiw mu ngi ak yow waxi malaaka ma daldi jaaxal maryaama muy xalaat lu nuyoo boobu mën a tekki malaaka ma ne ko bu ragal dara maryaama ndaxte yàlla tànn na la ci yiwoom dinga ëmb jur doom ju góor nanga ko tudde yeesu ku màgg lay nekki te dinañu ko wooye doomi aji kawe ji borom bi yàlla dina ko jébbal nguuru daawuda maamam noonu dina yilif askanu yanqooba ba faw te nguuram du am àpp maryaama laaj malaaka ma ne ko naka la loolu mën a ame man de jànq laa ba tey malaaka ma tontu ko ne xel mu selli mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañu ko wooye ku sell doomu yàlla ji elisabet sa mbokk mi it dina am doom ju góor ci màggetam ki ñu doon wooye ki mënula am doom mu ngi ci juróom benni weeram ndaxte dara yàlla maryaama ne ko jaamu borom bi laa na yàlla def ci man li nga wax ci noonu malaaka ma daldi dem ci jamono jooju maryaama jóg gaawantu dem ci benn dëkk bu nekkoon ca tund ya ca diiwaanu de mu dugg ca kër sakariya daldi nuyu elisabet naka la elisabet dégg maryaama di nuyoo doomam daldi yëngutu ci biiram noonu xelum yàlla mu sell mi daldi solu elisabet elisabet wax ca kaw ne barkeel nañu la ci jigéen ñi barkeel doom ji nga ëmb man maay kan ba ndeyu sama boroom ñëw di ma seet si maa ngi lay wax ni naka laa dégg ngay nuyoo rekk sama doom ji yëngu ci sama biir ndax mbég barke ñeel na la yow mi gëm ni lii la borom bi yégal dina mat noonu maryaama daldi ne sama xol a ngi màggal borom bi sama xel di bég ci yàlla sama musalkat ndaxte fàttaliku na ma man jaamam bu woyof bi gannaaw si tey niti jamono yépp dinañu ma wooye ki ñu barkeel ndaxte ku màgg ki defal na ma lu réy turam dafa sell day wàcce yërmandeem ci ñi ko ragal ci seeni ba ci seeni sëtaat wone na jëf yu mag ci doole loxoom te tes mbooloom ñi réy réylu daaneel boroom doole yi ci seen nguur yëkkati baadoolo yi ñi xiif reggal na leen ak ñam wu neex te dàq boroom alal yi ñu daw ak loxoy neen wallu na bànni Israyil gi jaamam di fàttaliku yërmandeem ni mu ko diggee woon sunuy maam jëmale ko ci Ibrahima ak askanam ba faw noonu Maryaama toog fa Elisabet lu wara tollook ñetti weer soog a ñibbi ginnaaw loolu jamono ji Elisabet wara mucc agsi mu daldi jur doom ju góor dëkkandoom yi ak mbokkam yi yëg ne borom bi won na ko yërmande ju rëy ñu ànd ak moom bég bi bés ba dellusee ñu ñëw xarafal ci xale ba bëggu ko duppe baayam sakariya waaye yaayam ne leen déedéet yaxya lay tudd ñu ne ko amoo menn mbokk mu tudd noonu ñu daldi liyaar baayam ngir xam nan la bëgg ñu tudde xale ba sakaya laaj àlluwa bind ci ne la tudd ñépp daldi waaru ca saa sa yàlla dindi luu gi sakare daldi waxaat di màggal yàlla waa dëkk ba bépp jaaxle xew-xew yooyu siiw ca tund yu de yépp ñi dégg nettali bi jëm ci mbir yooyu dañu ko denc ci seen xol te naan nu xale bii di mujje nag ndaxte leeroon na ne doole boroom baa ngi ànd ak moom sakariya baayu yaxya daldi fees ak xel mu selli mi noonu mu wax ci kàddug yàlla ne cant ñeel na boroom bi yàllaay israyel ndaxte wallusi na mbooloom ba jot leen feeñal na nu musalkët bu am doole bi soqikoo ci askanu daawuda jaamam ni mu yégle woon bu yàgg jaarale ko ci yonentam yu sell yi dina nu musal ci sunuy noon jële nu ci sunu loxoy bañaale yàlla wone na yërmandeem ji mu digoon sunuy maam te di fàttaliku kóllëre gi mu fas ak ñoom di ngiñ li mu giñaloon sunu maam Ibrahima naan dinanu teqale ak sunuy noon ngir nu man koo jaamu ci jàmm nu sell te jub ci kanamam sunu giiru dund yow nag doom dinañu lay wooye yonentu aji kawe ji ndaxte dinga jiitu di yégle ñëwu boroom bi di ko xàllal yoon wi dinga xamal mbooloom ni leen borom bi mën a musale jaare ko ci seen mbaalu bàkkaar ndaxte yàlla sunu boroom fees na ak yërmande ba tax muy wàcce ci nun jant buy fenk ngir leeral ñi toog ci lëndëm takk ndeeru dee tiim leen ngir jiitenu ci yoonu jàmm noonu yaa ngi doon màgg te xelam di ubbiku mu dëkk ca màndiŋ ma ba bés ba muy feeñu bànni Israyel Luk ca jamono jooja buur bu mag bu ñuy wax Auguste joxe ndigal ne na ñépp bindu ji mbindu mooma di mu jëkk ma daje na ak jamono jëkk Kiriniyus nekke boroom réewu Siri noonu ku nekk dem bindu ca sa dëkku cosaan yuusufa nag daldi jóge nasaret ca diwaanu galile jëm ca diiwaanu yude ca betleyem dëkk ba daawuda cosaanoo ndaxte ci askanu daawuda la bokk mu dem bindu ji ànd ak maryaama jabaram fekk booba maryaama ëmb bi ñu nekkee betleyem waxtu wa mu waree mucc agsi mu tawloo doom ju góor mu laxas ko ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur ga ndaxte xejuñu woon ca dalukaay ba fekk booba amoon na ca gox ba ay sàmm yu daan fanaan ca tool ya di wattu jur ga noonu benn malaakam borom bi feeñu leen ndamu borom bi daldi leer melax wërleen leen tiitaanga ju jàpp leen waaye malaaka mi ne leen buleen leen tiit ndaxte dama leen di xamal xabaar bu baax buy indi mbég mu réy ci nit ñépp te jii ca dëkku daawuda ab musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di boroom bi ci firnde ji ngeen koy xàmmee dingeen gis liir bu ñu laxas ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur bi mu waxee loolu yeneen malaaka yu bari yu jóge asamaan ànd ak moom di sant yàlla naan nañu màggal yàlla ca asamaan su kawe te ci àddina na jàmm ji wàcc ci nit ñi mu nangu ndax yiwoom bi malaaka ya delloo ci asamaan sàmm yi di waxante naan nanu dem boog betlehem seeti la fa xew dinu borom bi xamal ñu daldi gaawantu dem gis maryaama ak yuusufa ak liir ba ñu tëral ca lekkukaayu jur ga bi ñu leen gisee ñu nettali lañu leen waxoon ca mbirum xale ba ñi dégg li sàmm yi doon wax ñépp daldi waaru lool waaye maryaama moom takkoon na mbir yooyu yépp di ko xalaat ci xolam noonu sàmm ya dellu ca seen jur di màggal yàlla di ko sant ci li ñu déggoon lépp te gis ko ndaxte lépp am na ni ko borom bi waxe woon ba bis ba dellusee jamonoy xarafal xale ba agsi ñu tudde ko yéesu ni ko malaaka ma digle woon laata ko yaayam di ëmb noonu jamono ji ñu leen waroon a sellale agsi ni ko yoonu musaa tërale waajuru yéesu yi daldi koy yóbbu ca dëkku yerusalem ngir sedde ko borom bi ndaxte bind nañu ci yoonu borom bi ne bépp taaw bu góor nañu ko sedde borom bi bi ñu ko yóbboo def nañu itam sarax ni ko yoonu borom bi santaane ñaari pitoxo àll walla ñaari xëtti yu ndaw amoon na ca nit ku tudd simeyon nit ku fonkoon yoonu yàlla la te déggal ko doon sentu jamono ji yàlla war a defal bànni israyil xel mu sell mi mu ngi ci moom te xamal na ko ne du dee mukk te gisul almase borom bi noonu xelum yàlla daldi yóbbu simeyon ba ca kër yàlla ga bi waajuru yéesu indee xale ba ngir sédde ko yàlla ni ko yoon wi santaane simeyon jël xale bi leewu ko daldi sant yàlla ne borom bi nanga yiwi sa jaam mu noppalu ji ci jàmm ni nga ko waxe ndaxte sama bët tegu na ci mucc gi nga lal xeet yépp seede ko muy leer gi leeral xeet yi di namu Israyel say gaay waajuru Yeesu yi waaru ci li ñu doon wax ci xale bi noonu Simoyon ñaanal leen ba noppi ne Maryaama xale bi yàllaa ko yónni ngir ñu bari ci Israyel daanu te yëkkatiku def na ko it muy firnde ju ñuy weddi ba naqar dina xar sa xol ni jaasi noonu xalaatin ñu bari feeñ amoon na it te Yerusalem yonent bu ñuy wax ana doomu fanuwel mi askanoo ci aseer la woon te ana màggatoon na lool bi mu séyee dëkk na juróom ñaari at ak jëkkëram jëkkër ja gaañu te seyatul léegi amoon na juróom ñett fukki at ak ñeent mu ngi dëkke woon a jaamu yàlla guddi ak bëccëg ca kër yàlla ga di ñaan ak di woor aana yem ca waxi simoyon ya daldi gërëm yàlla tey yëgal mbiri liir ba ñépp di doon séentu jamono ji yàlla war a jot yerusalem bi waajuru yeesu yi matalee seen warugar ci lépp lu yoonu borom bi santaane woon ñu dellu seen dëkku nasaret te diiwaanu galile xale baa nga doon màgg di dëgër mu fees ak xel te yiwu yàlla ànd ak moom at mu jot nag waajuru yeesu yi daan nañu dem yerusalem ngir màggali bésu ba noonu bi yeesu amee fukki at ak ñaar ñu dem màggal ga ni ñu ko daan defe naka jekk bi màggal ga tase ñu dëpp ñibbi waaye xale ba yéesu des yerusalem te ay waajuram yëguñu ko ñu xalaat ne yeesu dafa àndoon ak ñeneen ñi ñu bokkaloon yoon bi ñu doxee bisub lëmm ñu tàmbali di ko seet ci seen mbokk yi ak seen xame yi bi ñu ko gisul nag ñu daldi dellu yerusalem seeti ko ca gannaaw ëllëg sa ñu fekk ko ca kër yàlla ga mu toog ci jàngalekatu yawut yi di déglu ak di laajte ñépp ñi dégg li mu wax yéemu ci xel mi mu àndal ak ni mu doon tontoo naka la ko waa waajuram yi gis ñu daldi waaru yaayam ni ko sama doom lu tax nga def nu lii man ak sa baay ñu ngi la doon seet jaaxle lool mu ne leen lu tax ngeen may seet xanaa xamu leen ni dama war a nekk ci sama kër baay waaye xamuñu li kàddoom yi doon tekki noonu yéesu daldi ànd ak ñoom dellu nasaret te déggal ay waajuram fekk yaayam moom takk mbir yooyu yépp ci xolam yéesoo ngi doon màgg ci jëmm tey yokk ci xam-xam te neex yàlla ak nit ñi ñett fukkeelu at juróom ci nguuru tibeer sesaar fekk pons pilaat yilif yilif diiwaanu galile filip magam yilif diwaanu iture ak bu tarakonit te lisañaas yilif abilen te it anaas ak kayif nekkoon saraxalekat yu mag ya ca jamono jooja la kàddug yàlla wàcc ci yax ya doomu sakariya ca màndiŋ ma ya daldi dugg àll bi wër dexu yordaan gépp di waare nii tuub leen seeni bàkkaar ba noppi ma soob leen ci ndox ngir yàlla baal leen seeni bàkkaar loolu lañu bind ci téere wax yonent yàlla esaayi naan am na baat buy xaaju ca màndiŋ ma ne xàlli yoonu borom bi jibal leen fi muy jaar nañu sëkk xur yi maasale tund yeeg janj yi yoon yi dëng ñu jubanti leen yi ñagas ñu rataxal leen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 ndaxte maa ngi leen koy wax yàlla mën naa defal Ibrahima ay doom ci doj yii semeñ wi tiim na reeni garab yi garab nag gu meñul doom yu baax des na ko gor sànni ko ci safara si mbooloo ma laaj ko ne lan lanu war a def nag mu ni leen ku am ñaari mbubb nga jox menn mi ki amul ku am ñam itam nga bokk ko ak ki amul ay juutikat itam ñëw ca ya ngir mu sóob leen ci ndox ñu ne ko kilifa gi lu nu war a def mu tontu leen ne laaj leen rekk lu jaadu ay xarekat laaj nañu ko ne li jëm ci ñun nag mu ne leen bu leen néewal doole kenn jël xaalisam ci kaw ay tëkku mbaa ci seede lu dul dëgg waaye doyloo leen li ñu leen di fey mbooloo maa ngiy xaar di seen tooka ci seen xel ndax yaxya mooy almasi bi noonu yax yaxya tontu leen ñoom ñépp ne man maa ngi leen di soob ci ndox waaye kii ma ëpp kàttan dina ñëw te yeewuma tekki ay dàllam kooku dina leen soob ci xel mu sell mi ak safara layoom mu ngi ci loxoom ngir jëri dàgg ja ba mu set pepp ma dina ko def ca sàqam waaye xatax ba dina ko lakk ci safara su dul fey mukk noonu Yaxya teg ca yeneen dénkaane yu bari di yégal nit ñi xabaar bu baax ba waaye Yaxya yedd na Erod boroom diwaanu galile ndaxte dafa takkoon erodiyaad jabaru magam te boole woon na ci yeneen ñaawteef ba faf noonu yaxya mbooloo mépp ci ndox soobaale it yeesu bi yeesu di ñaan nag asamaan daldi ubbiku noonu xel mu sell mi daldi wàcc ci moom yor jëmmu pitax te baat bu jóge asamaan jibné ne yaa di sama doom ji ma bëgg ci yow laa ame bànneex bi yeesu di tàmbali liggéeyam amoon na lu war a tollu ci fanweeri at di doomu yusufa ci bëti nit ñi te yusufa mooy doomu eli mi doomu mataat mataat lewi mooy baayam lewi melki melki yanayi yanayi yusufa yusufa matatyas amos nahum esli nagayi nagayi maat matatyas semeyin yosek yoda yoda yowanan mooy baayam yowanan resa resa sorobabel kooku salacel a ko jur salacel neeri neeri melki addi kosam elmadam er er yeesu eliyeser yorim mataat lewi simeyon yuda yusufa yonam eliakim eliakim meleya meleya mena mena matata matata natan natan daawuda daawuda mooy doomu yese yese obed bowaas salmon nason nason aminadab aminadab admin arni esrom fares yuda yankoba isaaxa ibrahima taara nakoor serug ragaaw falek eber sala sala kaynam mooy baayam kaynam arfaksad arfaksad sem sem nooyin nooyin lamek lamek matasula enok yared maleleel kaynam enos set set doomu aadama aadama doomu yàlla noonu yéesu fees ak xel mu sell mi jóge dexu yurdaan xelum yàlla mi yóbbu ko ca màndin ma mu nekk fa ñeent fukki fan jànkonte ak fiiri seytaane lekkul woon dara ci fan yooya te ginnaaw gi mu xiif noonu seytaane ni ko boo dee doomu yàlla santal doj wi mu nekk mburu yéesu tontu ko ne mbind mi nee na nit du dunde mburu rekk seytaane yóbbu na ko fu kawe ci xef xippi mu won ko réew yi àddina sépp ne ko dinaa la jox bépp sañ-sañu nguur yi ak seen ndam ndaxte jébbal nañu ma ko te ku ma soob laa koy jox kon boo ma màggalee dinga moom lépp yéesu tontu ko ne mbind mi nee na nanga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rekk seytaane yóbbu na ko yerusalem teg ko ci njobaxtalu kër yàlla ga ne ko boo dee doomu yàlla tëbal jëm ci suuf ndaxte mbind mi nee na dina jox ay malaakaam ndigal ci sa mbir ñu sàmm la dinañu la leewu ci seeni loxo ngir nga bañ a fakastalu ciw doj yéesu tontu ko ne bind nañu ne bul diingat yàlla sa boroom bi mu ko lalalee fiiram yi mu am yépp seytaane daldi sori yéesu di xaar yeneen jamono yéesu dellu diiwaanu galile fees ak dooley xelum yàlla te turam siiw ca diiwaan booba bépp muy jàngale ci seeni jàngu te ñépp di ko tagg yéesu dem nasaret fa mu yaroo te ca bisu noflaay ba mu dugg ca jàngu ba ni mu ko daan defe noonu mu taxaw ngir jàngal mbooloo mi ñu jox ko téereb yonent yàlla Esayi bi mu ko ubbee mu gis barab ba ñu bind aaya yi xelum boroom baa ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi xabaar bu baax bi dafa maa yónni ngir ma yëgal jaam ñi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot te yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi bi mu jàngee aaya yooyu ba noppi mu ub téere bi delloo ko ki koy denc toog ñépp ña nekkoon ca jàngu ba dekk koy bët noonu mu daldi ne tey jii loolu mbind mi wax mat na bi ngeen koy déglu ñépp di seede lu rafet ci yeesu di waaru ci wax ju neex ji mu doon yégle ñu naan ndax kii du doomu yuusufa mu daldi leen ne xam naa ni dingeen ma ne fajkat bi fajal sa bopp yëg nanu li xew kaparnayom defal lu ni mel fii ci réew mi nga dëkk mu tegaat ci ne ci dëgg maa ngi leen koy wax ab yonent kenn du ko teral ca réewam ci dëgg maa ngi leen koy wax ca jamonoy Iliyaas bi mu tawul lu mat ñetti at ak genn wàll te xiif bu metti am ci réew mépp amoon na ca Israyel jigéen yu bari yu seen jëkkër faatu moo ne yàlla yónniwul Iliyaas ci kenn ci ñoom waaye mu yebal ko ci jigéen ju jëkkëram faatu ju dëkk Sarepta ca wetu sidon te amoon na ca israyel ca jamono yonent yàlla alisa ay nit ñu bari ñu gaana waaye fajul ci kenn ku dul naamaan mi dëkkoon réewu siri bi ñu déggee wax yooya ñépp ña nekkoon ca jàngu ba daldi fees ak mer noonu ñu jóg génne ko dëkk ba yóbbu ko ca mbartalum tund wañu sanc seen dëkk ngir bëmax ko ci suuf waaye moom mu jaar ci seen biir dem yoonam ginnaaw loolu yéesu dem kaparnayom ab dëkk ci diwaanu galile mu jàngal leen ca bésu noflaay ba ñu waaru ci njàngaleem ndaxte dafa wax ak sañsañ noonu am na ci jàngu bi nit ku rab jàpp mu daldi xaacu ne moo yow yeesum nasaret loonuy fexeel ndax danga ñëw ngir alak nu xam naa la yaa di aji sell li jóge ci yàlla waaye yeesu gëdd ko naan noppil te génn ci moom noonu rab wi daaneel nit ki ci suuf ci kanamu ñépp daldi génn ci moom te gaañu ko bi loolu amee ñépp waaru ñuy waxante ci seen biir naan cey ji wax ci sañ ak doole lay sant rab yi ñu daldi génn noonu turam siiw ci diiwaan bépp bi mu jógee ci jàngu bi yéesu dafa dem kër simon gorob simon bu jigéen dafa feebar ba yaram wi tàng lool ñu naan yéesu mu dimbali leen ci mu randu si tiim ko gëddu tàngoor wi mu dem noonu tàngoor wi wàcc soxna si jóg ca saasa di leen toppatoo bi jant sowee ñu ngi liye suñu wopp ñépp ak ay jàngoro yu wuute kenn ku nekk mu teg la loxo wéral la te it ay rab di génn ci nit ña te di yuuxu naan yaay doomu yàlla noonu mu gëdd leen te mayu leen ñu wax dara ndaxte xam nañu ne mooy almasi bi ca njël gu jëkk yéesu génn dem ca barab bu wéet mboolo ma di ko seet bi ñu ko gisee ñu koy wute téye ngir bañ mu dem waaye mu ne leen dama war a dem ci yeneen dëkk yi ngir yégle xabaar bu baax bi ci nguuru yàlla ndaxte looloo tax ñu yónni ma noonu dem di waare ci jàngu ya ci réewu yawut ya Luk juróom benn bis Yeesu taxaw ca tefesu dexu Senesaret mbooloo ma wër ko di buuxante ngir déglu kàddu yàlla noonu mu gis ñaari gaal yu teer ca tefes ga nappkat ya ca wàcce di raxas seeni mbaal mu dugg ci genn gaal fekk muy gu Simon mu ne ko mu joow ba sori tuuti noonu yeesu toog ca gaal ga di jàngal mbooloo ma bi mu jàngalee ba noppi mu ne simon joowal gaal gi ba fa ndox ma gën a xóote ngeen sànni fa seeni mbaal ngir nàpp simon tontu ko ne kilifa gi coono lanu fanaane biig te jàppunu dara waaye nag dinaa ko sànni ci sa ndigal naka lañu sànni mbaal yi jàpp jën yu bari ba mbaal yey tàmbalee xët noonu ñu daldi liyaar seeni àndandoo yi nekk ca geneen gaal ga ngir ñu ñëw dimbali leen ñooñu agsi ñu feesal ñaari gaal yi ba ñuy bëgg a suux naka la Simon Pierre gis loolu daldi sukk ci kanamu yéesu ne ko sori ma borom bi ndaxte nitu bàkkaar laa wax na loolu nag ndax jën yu bari ya ñu mbaaloon daf koo jaaxal moom ak ña mu àndaloon ak ña mu bokkaloon liggéey ba maanaam ñaari doomi sebede yi di saak ak yowaana yeesu ne simon bul ragal dara gannaaw si tey ay nit ngay mbaal jëme ci man noonu ñu teer ca tefes ga bàyyi lépp di topp ci moom ni yéesu nekke woon ci ab dëkk am fa ku gaana ba daj bi mu gisee yéesu mu daldi dëpp jéem ci suuf ñaan ko sang bi soo ko bëggee mën nga ma wéral yeesu tàllal loxoom laal ko naan bëgg naa ko wéral ca saa sa ngaanam daldi deñ yéesu sant ko ne bu ko wax kenn waaye demal won sa bopp saraxalekat bi te nga jébbal yàlla sarax si yoonu musaa santaane ngir ñu xam ni wér nga te mu nekk seede ci ñoom noonu turu yéesu di gëna a siiw mbooloo mu bari di ñëw ci moom ngir déglu ko te mu faj seeni jàngoro waaye yeesu moom di beddeeku ci barab yu wéet ya di ñaan am na bis yeesu doon jàngale amoon na ca mbooloo ma ñu bokkoon ca farisiyen ya ak ay xutbakat yu jóge ca dëkk yépp ya ca galile ak ya ca yude ak yerusalem yéesu àndoon na ak dooley borom bi ba muy faj ay jarag noonu ay nit ñëw jàppa basan gañu tëral nit ku yaram wépp làggi ñu di ko wuta dugal ca kër ga ngir indi ko ca yéesu waaye gisuñu fu ñu koy awale ndax mbooloo ma ñi daldi yéeg ca kaw kër ga nag xeddi tiwil ya yoor waaje ak basan ga wàcce ko ci kanama yeesu ca biir mbooloo ma bi yéesu gisee seen ngëm mu ne làggi ba sama waay baal nañu la say bàkkaar xutbakat yi ak farisiyen yi di werante ci seen xel naan kii mooy kan bay sosal yàlla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 jógal jël sa basaŋ te nga ñibbi nit ka jóg ca saasa ci kanamu ñépp jël basaŋ gañu ko tëraloon ñibbi tey màggal yàlla mbooloo mépp waaru di màggal yàlla ñu ragal tey wax naan gis nañu tey ay mbir yu ëpp xel ginnaaw loolu yeesu génn gis ab juutikat bu tudd lewi mu toog ca juuti ba mu ne ko kaay topp ci man léewi jóg bàyyi lépp daldi ko topp noonu léew yi togglu ay ñam yu bari ci këram ngir teral yéesu juutikat yu bari ak yeneen gan ñu nga fa woon di lekkandoo ak ñoom farisiyen yi ak seeni xutbakat di xultu taalibe yéesu yi ni leen lu tax ngeen di lekkandoo ak di naandandoo ak ay juutikat ak ay boroom bàkkaar yeesu tontu ne ñi wér soxla wu ñu fajkat ñi wéradi ñoo ko soxla ñëwuma ngir woo ñi jub waaye ngir woo bàkkaarkat yi ñu tuub seeni bàkkaar noonu ñu ne yéesu taalibe yaxe yi ak yu farisiyen yi dinañu faral di woor ak di ñaan ci yàlla waaye say taalibe ñu ngiy lekk ak di naan yeesu ne leen ndax mën ngeena a woorloo gan yu ñëw ci céet li feek boroom céet gaa ngi ànd ak ñoom waaye bis yaa ngi ñëw yu ñu jële borom céet gi ci seen biir bés yooyu nag dinañu woor te yeesu wax leen léeb wi kenn du jël mbubb mu bees xotti ci sekit daaxe ko mbubb mu màggat lu ko mooy dina xotti mbubb mu bees mi te sekkiit wi mu ci jële du ànd ak mbubb mu màggat mi te kenn def biiñ bu bees ci mbuusi der yu màggat lu ko moy biiñ bu bees bi day toj mbuus yi biiñ bi tuuru mbuus yi yàqu waaye dañoo wara def biiñ bu bees ci mbuus yu bees ku naan biiñ bu màggat du bëgg bu bees bi ndax day wax ne bu màggat bi baax na Luk sar juróom amoon na benn bisu noflaay yéesu di dem jaar ci ay tool yu ñor taalibeem ya di fàq ay cëgg di leen boxam ci seeni loxo tey lekk am ay pharisien yu ne lu tax ngeen di def lu jaaduwul ci bésu noflaay bi yéesu tontu leen ne ndax jànguleen la daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ña mu àndaloon xanaa yëguleen ni mu dugge woon ca kër yàlla ga jël mburu ya ñu jébbal yàlla lekk ca jox ca ña mu àndaloon fekk jaaduwul kenn lekk ko ku dul saraxalekat yeesu dellu ne leen doomu nit ki mooy borom bisu noflaay bi beneen bisu noflaay yéesu dugg ca jàngu bi di fa jàngale amoon na fa nit ku loxool ndejooram làgg yi xutbakat yi ak farisiyen yi ñu ngi doon xool ba xam dina ko faj ci bésu noflaay bi ngir ñu am lu ñu ko tuumaale waaye yeesu xam seen xalaat daldi ne ku loxoom làgg yi jógal taxaw ci kanamu ñépp nit ka daldi jóg taxaw yeesu ne leen ma laaj leen lan moo jaadu nu def ko bisu naflaay bi lu baax mbaa lu bon nu musal nit mbaa nu lor nit ci kaw loolu mu xool leen ñoom ñépp ba noppi ne nit ka tàllala sa loxo mu tàllal ko loxoom daldi wér péng waaye nit ña ba fees di rabat pexe yu jëm ci yeesu te bés yooya yeesu yéeg ca tund wa ngir ñaan mu fanaan fa di ñaan ci yàlla bi bët setee yeesu woo taalibeem yi tànn ci fukk ak ñaar tudde leen ay ndawam simon mi yeesu tudde pierre ak andré mi bokk ak pierre ndey ak baay saak ak yowaana filip ak bartelemi màcc ak tomaa saak doomu alfe ak simon mi bokk ci mbooloo ma ñu tudde ñi farlu ci moom seen réew yuda doomu saak ak yuda iskariyo mi mu wor yéesu ànd ak ndaw ya wàcc tund ya daldi taxaw ca joor ga fa mbooloom taalibe mu takku nekkoon amoon na fa it ay nit ñu bari ñu jóge ci réewu yawut ya mépp ak ca dëkku yerusalem ak dëkk yi nekk ca wetu géej ga maanaam tiir ak sidon dañoo ñëw ngir déglu ko te it ngir mu faj leen ñi rab jàpp it faju nañu ñépp a ngi ko doon wuta laal ndax doole ji jóge ci moom di faj ñépp yéesu xool ay taalibeem ne leen yéen ñi sësul lu dul ci yàlla barkeel ngeen ndaxte nguuru yàlla yéen a ko yelloo yéen ñi xiif léegi barkeel ngeen ndax dingeen regg yéen ñi naqarlu léegi barkeel ngeen ndax dingeen ree barkeel ngeen buleen nit ñi bañee di leen dàq ka saaga di sib seen tur ngir doomu nit ki bu boobaa bég te bànneexu ndax seen yool dina réy ci laaxira ndaxte noonu la maam yi seeni bañ daan fitnaale yonent yi waaye nag yéen boroom alal yi torox ngeen ndaxte jot ngeen ba noppi seen bànneex yéen ñiy lekk ba suur léegi torox ngeen ndax ëllëg dingeen xiif yéen ñiy ree léegi torox ngeen ndax dingeen am aw naqar ba jooy xàcc torox ngeen bu leen ñépp dee waxal lu baax ndaxte noonu la seeni maam daan jëfe ak ña doon mbubboo yonent waaye maa ngi leen koy wax yéen ñi may déglu sopp leen seeni bañaale tey defal lu baax ñi leen bañ yéene leen lu baax ñi leen di moolu te ñaanal ñi leen di sonal ku la talaata cibleex jox ko ba ca des kuy nangu sa mbubb mu mag bul téye sa turki képp ku la ñaan may ko te ku nangu say yëf bu ko ko laaj defal leen nit ñi li ngeen bëgg ñu defal leen ko su ngeen soppee ñi leen sopp ban ngërëm ngeen ci am ndaxte bàkkaarkat yi sax sopp nañu ñi leen sopp te bu ngeen defalee lu baax ñi leen koy defal ban ngërëm ngeen ciy am bàkkaarkat yi it dañuy def noonu te bu ngeen dee leble te yaakaar ci ndelloo ban ngërëm ngeen ciy am bàkkaarkat yi it dañuy lebal seeni moroom ngir ñu delloo leen ko waaye sopp leen seeni noon di leen defal lu baax tey leble bañ a yaakaar ñu delloo leen ko noonu seen yool dina màgg te dingeen wone ne yéene doomi aji kawe ji ndaxte yàlla day wone mbaaxam ci ñu gore di ñi ak ñu soxor ñi na ngeen am yërmande ni seen baay ame amee yërmande bu leen àtte seeni moroom ak ñaaw njort te deesu leen àtte buleen daan kenn te deesu leen daan baal leen ñi ci des te dinañu leen baal maye leen te dinañu leen may dinañu leen ëmbal natt bu baax bu ñu rokkas te yëngal ko mu fees bay tuuru ndaxte dees na leen nattal ak natt bi ngeen di nattale noonu Yeesu wax leen beneen léeb ne leen ndax gumba mën naa womat moroomam mbaa duñu daanu ñoom ñaar ci kàmb taalibe gënul kilifaam waaye taalibe bu jàng ba wàcc dina yem ak kilifaam demin lu tax ngay xool ñax gi ci sa bëtu mbokk te gisuloo gaañ gi ci sa bët yow nan nga mën a waxe sa mbokk sama xarit may ma ma dindi la ñax gi ci sa bët yow mi gisu gaañ gi nekk ci sa bët naafeq jëkka la dindi gaañ gi ci sa bët te noonu dinga mën a gis bu leer ngir dindi ñax gi ci sa bëtu mbokk garab gu baax du meññ doom yu bon te garab gu bon du meññ doom yu baax ndaxte garab meññeefam lañu koy xàmmee desul wite figg ci dédd walla reseñ ci xaaxaam noonu nit ku baax lu baax lay wax ndax loolu la denc ci xolam te nit ku bon lu bon lay wax ndaxte denc na lu bon ci xolam ndaxte gémmiñ la fees xolam lay wax lu tax ngeen may wooye borom bi borom bi te du ngeen def li may wax képp ku ñëw ci man di dégg samay wax te di ko jëfe ma won leen nu muy mel dafa mel ni nit kuy tabax kër mu gas fu xóot jot doj wu rëy samp fa kër ga bi mbënn ma ñëwee wal ma dafa dal ca kër ga te yënguwul ndaxte nit ka dafa tabax kër ga tabax bu dëgër waaye képp ku dégg samay wax te jëfewuloo ko dinga mel ni nit ku tabax këram ci suuf bañ ko defal fondement bi wal ma dalee ci kër googa dafa màbb ca saasa lépp yàqu ya xeet Luk sar juróom ñaar waxee la mu waroon a wax lépp ca kanamu mbooloo ma mu daldi dem Kaparnayom amoon na fa njiitu xare njiit la nag surgaam ba mu bëggoon lool dafa feebaroon bay bëgg a dee bi mu déggee mbiri yéesu mu yónni ca moom ay yawut di magi dëkk ba ngir ñaan ko mu ñëw faj surga ba bi magi dëkk ba agsee ci yeesu ñu sàkku ci moom ndimbal ñaan ko ki nu yónni ci yow de yelloo na ndimbal ndaxte sopp na sunu xeet te moonu tabaxal sax sunu jàngu noonu yéesu daldi ànd ak ñoom waaye bi ñuy bëgg agsi ca kër ga njiit la yebal ay xaritam ngir ñu wax yéesu ne sang bi bul sanal sa bopp ndaxte yeyow nga dugg sama kër loolu taxit ma xalaat ne awma dara jaay gàttandu la waxal genn kàddu rekk te sama surga dina wér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 musuma cee gis ku gëme nii noonu ndaw ya daldi dellu ca kër ga bi ñu egsee ñu gis ne surga ba wér na yàggul dara yéesu dem ci dëkk bu ñuy wax nayin taalibeem yi ak mbooloo mu bari ànd ak moom bi muy agsi ca buntu dëkk ba fekk ñuy rob néew boo xam ne kenn rekk la woon ci ndeyam di jëkkëram faatu woon te mbooloo mu bari ca dëkk ba di gunge soxna sa bi ko boroom ba gisee mu daldi koy yërëm ne ko bul jooyeeti mu jegeñ si laal jaat ga ñi ko jàppoo taxaw mu ne waxambaane wi jógal ndigal la noonu nit ka deewoon jóg toog tàmbalee wax yéesu delloo ko yaay ja ñépp tiit bay màggal yàlla di wax naan yonent bu mag feeñ na ci sunu biir yàlla wallu si na mbooloom lañu wax ci mbir yéesu daldi siiw ci réewu yawut ya ak la ko war yépp taalibe yaxe ya nettali mbir yooyu yépp seen kilifa noonu yaxya woo ñaar ci ay taalibeem yónni leen ci boroom bi ngir laaj ko ndax yow yaa di ki war ñëw wala dañoo war a xaar keneen bi taalibe agse ci yeesu ñu ne ko yaxya moonu yebal ñu laaj la ndax yaa di ki waroon a ñëw wala dañuy xaar keneen ca waxtu woowa yeesu wéral nit ñu bari ci seeni feebar ak ci seeni metit di dàq ay rab tey gisloo ay gumba noonu mu tontu ndaw ya ne leen dem leen nettali Yaxya li ngeen gis te dégg ko gumba yaa ngi gis lafañ yi dox gaane yi wér tëx yi dégg ñi dee di dekki te ñu woyoflu ñu ngi dégg xabaar bu baax bi yow mi sa ngëm yolomul ndax man barkeel nga bi ndawi yax yi demee yéesu daldi wax ak mbooloo ma ci mbirum Yaxya ne leen xanaa barax buy jaayu ci ngelaw li kon lu ngeen seeti woon nag nit ku sol yére yu rafet waaye ñiy soloo noonu tey dund dund gu neex ñu ngi dëkk ci këri buur kon lu ngeen seeti woon yonent waaw wax naa leen ne ëpp na yonent yax male moo di ki ñu waxoon ci mbind mi naan maa ngi yónni sama ndaw mu jiitu la te xalal la yoon ci sa kanam maa ngi leen koy wax ci li jigéen jur ku sut Yaxya musula feeñ waaye ba tey ki gën a ndaw ci nguuru yàlla moo ko sut nit ñépp ñi doon déglu yéesu ba ci juutikat yi sax dëggal nañu ne yàlla ku jub la ndaxte nangu nañu Yaxya sóob leen ci ndox waaye farisiyen ya ak xutbakat ya dañoo bañ mu sóob leen ci ndox di wone noonu ne gàntu nañu li leen yàlla bëggaloon yéesu tegaat ci ne kon lan la mën a méngaleel ni ci jamono ji lan lañuy nurool ñu ngi nuroog xale yu toog ca pénc ma tey woowante naan liital nañu leen ak toxoro te feccu leen woyal nañu leen woy dëj te jooyu leen yax ya feeñ na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 bu ñaan yéesu mu ñëw lekkandoo ak moom yéesu dem kër waaja toog ca lekkukaay fekk amoon na ca dëkk ba jigéen juy mooy yàlla bi mu yëgee ne yéesoo ngay lekk ca kër pharisien ba mu dem yóbbaale njaq lu ñu defaree doj wu ñuy wax albaatar te def laj ko leen bi jigéen ji egsee mu taxaw ca gannaaw tànk yéesu di jooy noonu ay rongoñam tooyal tànk yéesu jigéen di di leen fomp ak karawam di leen fóon te ciy sotti laj koleñ ja naka la pharisien bi woo woon yéesu ci këram gis loolu mu wax ci xelam naan bu nit ki doonoon yonent kon dina xam kuy jigéen ji koy laal ak ni mu nekkee bàkkaarkat yéesu ne ca tonn daldi ne ba simon am na lu ma la war a wax simon ne ko waxal kilifa gi yéesu ne ko dafay amoon ñaari nit ñu ameel bor benn leblekat kenn kaa ngi ko ameel téeméeri junni ci xaalis ki ci des fukki junni waaye kenn ci ñoom mënu koo fey noonu mu baal leen bor ya ci ñaar ñooñu nag kan moo ko ci gën a bëgg simon tontu ne ko xanaa ki ñu baal bor bi gën a bari yéesu ne ko àtte nga dëgg daldi wëlbati ko ca jigéen ja ne simon ndax gis nga jigéen ji dugg naa sa kër te joxewuloo ndox ngir raxas samay tànk waaye moom raxas na samay tànk ak ay rongoñam ba noppi fomp leen ak karawam bi ma agsee foonuloo ma waaye moom bi ma duggee ba léegi tàyyiwul ci di foon samay tànk defuloo diw ci sama bopp waaye moom sotti na laj ko leen ci samay tànk moo tax ma di la wax ne su wonee mbëggeel gu réye nii dafa fekk ñu baal ko bàkkaaram yu bari waaye ki mbëggeeleem néew dafa fekk ñu baal ko lu tuuti yéesu daldi ne jigéen ja baal nañu la say bàkkaar noonu ñu doon lekkandoo ak moom di wax ci seen xel naan ki am sañ-sañu bale bàkkaar mooy kan waaye yéesu ne jigéen ja sa musal na la demal ci jàmm Luk saar gannaaw loolu yéesu di dem ca ay dëkk yu mag ak yu ndaw di waaraate ak di yégle xabaar bu baax bi jëm ci nguuru yàlla fukki taalibe ya ak ñaar ànd ak moom ak ay jigéen yu mu teqale woon ak rab te jële leen ci seeni wopp ñu di maryaama mi ñuy wooye maryaama magdala mi yeesu tàggale woon ak juróom ñaari rab saan jabaru ku ñuy wax kusa mi doon wattu alalu erod ak susaan ak ñeneen jigéen jigéen ñooñu ñoo doon joxe seen alal ngir dimbali yéesu ak ay taalibeem dëkk ak dëkk nit ñi dafa jóge jëm ci yéesu ba mbooloo mu bari dajaloo mu wax leen léeb wi dafa amoon beykat bu demoon ji bi muy saaw toolam nag lenn ci pepp mi wadd ci kaw yoon wi nit ñi joggi ci picc asamaan lekk ko lépp leneen wadd ci barab bu bari ay doj naka la sax rekk daldi wow ndaxte suuf si tooyul woon leneen nag wadd ci biir ay xaaxaam ñu saxandoo xaaxaam ya tànc ko li ci des dal ci suuf su baax sax nangu ba meññ téeméeri yoon lu ëpp la mu ji woon ginnaaw loolu yéesu wax ak kàddu gu dëgër ne déglul bu baax yow mi am ay nopp taalibe yéesu yi laaj ko lu léeb woowu di tekki mu tontu ni leen may nañu leen ngeen xam mbooti nguuru yàlla waaye ñi ci des dama leen di wax ci ay léeb noonu la ngir ñuy xool te duñu mën a gis di dégg te duñu mën a xam lii la léebu baykat bi di tekki kàddug yàlla mooy jiwu wi ki féete ci yoon yi mooy ki dégg gannaaw gi seytaane dafay ñëw këf kàddu gi ñu def ci xolam ngir mu bañ a gëm te yàlla musal ko ki nekk ci barab bu bari ay doj mooy ki dégg kàddu gi ba noppi nangu ko ak mbég waaye wax ji saxul ci moom dina gëm ab diir waaye bu natt yu agsee mu daldi dàggeeku ki jot ci jiw wi ci xaaxam yi mooy ki dégg kàddu gi waaye nes tuuti soxla yi ak alal ak bànneexe àddina tànc ko ba du àgg ci mat ki jot ci jiwu wi ci suuf su baax si nag mooy ki dégg kàddu gi te denc ko ci xool bu baax bu gore te muñ ba jur njariñ kenn du tàllamp làmp dëpp ci leget walla mu di ko def ci ron lal daf koy wekk ngir mu leeral ñiy dugg amul dara luy kumpa lu ñu dul siiwal bés walla lu làqu lu ñu dul feeñal ba mu ne fànn seet leen bu baax ni ngeen di dégloo kàddu gi ku am des na la dollil waaye ko amul des na nangu sax li nga xalaatoon ne am nga ko ba noppi noonu ndeyu yéesu ak ay rakkam ñëw seet ko waaye mënuñu woon agsi ci moom ndaxte nit ña dañoo bari am ku ko yëgal ne say yaay ak say rakk ñu ngi nii taxaw ci biti bëgg laa gis waaye mu daldi leen ne samay yaay ak samay rak ñoo ñiy déglu kàddu yàlla te di ko topp benn bés yeesu ànd na ak ay taalibeem dugg ci gaal mu ne leen nanu jàll dex gi noonu ñu dem mu ñuy dem nag yéesu daldi nelaw ngelaw lu am doole daldi ñëw yëngal dex gi gaal gi fees ak ndox ba ñu bëgg suux noonu taalibe yi jege ci yéesu yee ko ne kilifa gi kilifa gi ñu ngi dee ci kaw loolu yéesu jóg daldi gëdd ngelaw li ak duus yi lépp dal bani nem yéesu ne taalibe yi ana seen ngëm ñu daldi tiit te waaru naan ci seen biir kii moo di kan mu ngi jox ndigal ngelaw li ak ndox mi ñu koy déggal noonu ñu teer ca diwaanu waa seresa fa jàkkarloo ak diwaanu galile bi yeesu di wàcc ca gaal ga ku rab jàpp ca waa dëkk ba ñëw kar ko yàgg na def yaramu neen te dëkkul ca kër waaye ca sëg ya lay nekk bi mu gisee yéesu mu yuuxu daanu ci tànkam daldi xaacu ne yow yéesu doomi yàlla aji kawe ji loo may fexeel maa ngi lay ñaan nga bañ ma mbugal dafa wax loolu ndaxte yeesu santoon na rab wi mu génn ci moom rab wa dafa ko doon farale jàpp nit ñi daan nañu ko wattu di ko yeew ak ay càll la ak di ko jéng mu di leen dagg rab wi di ko xiir ci barab yu wéet noonu yéesu laaj ko noo tudd mu tontu ne coggol laa tudd dafa wax loolu ndaxte rab yu baree ko jàppoon rab yoo yoo ngi ko doon ñaan ngir mu bañ leen a sant ñu dem ca kàmb gu xóot gi fekk amoon na fa géttu mbaam xuux yu bari yuy for ca tund wa rab ya ñaan yeesu mu may leen ñu dugg mbaam xuux ya mu may leen ko noonu rab ya génn nit ka dugg mbaam xuux ya ñu daldi bartalu daanu ca dex ga lab sàmm ya gis li xew daw nettali ji mbir mi ca dëkk ba ak ca àll ba nit ñi génn ngir seetli li xew bi ñu agsee ca yeesu ñu fekk fa nit ka rab ya bàyyi woon toog ci kanam yéesu sol ay yére te ànd ak sagoom ñu daldi ragal ña fekke woon mbir ma nag nettali leen naka la yeesu wërale ki rab ya jàppoon ci kaw loolu waa diiwaanu seresa bépp ragal ba ñaan yeesu mu jóge fa noonu yéesu dugg ca gaal gi di bëgg a dem nit ki yéesu tàggale woon ak rab ya ñaan ko ngir ànd ak moom waaye yeesu woññi ko ne ko ñibbil nettali li la yàlla defal lépp noonu waa ji dem di wër dëkk ba yépp di fa yégle la ko yéesu defal bi yeesu dëppee dellu mbooloo ma di ko teeru ndaxte ñépp a ngi ko doon xaar noonu nit ñëw doon yayrus te nekk njiitu jàngu ba bi mu egsee mu daanu ci tànki yéesu saraxu ko mu ñëw këram ndaxte jenn doomam ju jigéen ji mu amoon képp te muy toll ci fukki at ak ñaar ma nga doon waaja dee bi yeesuy dem nit ñaa ngi doon buuxante di ko tànc amoon na nag ca mbooloo ma jigéen di doon xëpp deret diiru fukki at ak ñaar te kenn mënu ko woon a faj jigéen ja jige ci yeesu nag doxe ko gannaaw laal catu mbubbam te sa deret ji dal yéesu laaj nit ña ne ana laal ku nekk di miim noonu piyeer ne ko kilifa gi nit ñépp a ngi lay wër di la tànc wet gu nekk waaye yeesu ne am na ku ma laal ndaxte yëg naa ne am na doole ju génn ci man te jigéen ji xam ne mënul woon a nëbb li mu def mu daldi daanu ci tànki yéesu di lox noonu mu nettali ci kanamu ñépp li taxoon mu laal yéesu ak ni mu wére ca saasa yéesu ne ko soxna si sa ngëm faj na la demal ci jàmm bi yeesu di wax nag am na ku jóge ca kër njiit la mu ñëw naan sa doom faatu na matatul ngay sonal kilifa gi yéesu dégg kàddu yooyu daldi ne njiit la bul tiit gëmal rekk te dina dundaat bi yeesu ca kër ga nagul kenn duggaale moom ñu dul piyeer yowaana sak ak waajuri xale ba ña fa nekk ñépp di yuuxu ak di jooy xale bi noonu yeesu ne leen bàyyi leen seen jooy yi janq bi deewul day nelaw rekk waaye ñu di ko ñaawal ndaxte xamoon nañu ne dee na waaye yeesu jàpp loxo janq ba woo ko ne ko xale bi jógal noonu ruuwu xale ba dellusiwaat mu daldi jóg ca saasa yeesu santaane ñu may ko mu lekk waa waajuri xale bi daldi waaru waaye yeesu tere leen ñu wax kenn li xew Luk saar benn bis yeesu dajale fukki taalibe ya ak ñaar jox leen doole ak sañ-sañu dàq rab yépp ak di faj jàngoro yi noonu mu yónni leen ñu yégle nguuru yàlla ak di faj jarag yi mu ne leen bu ngeen di dem bu leen yóbbaale dara du yet mbaa mbuus mbaa mburu mbaa xaalis bu leen yor it ñaari turki kër gu ngeen dugg dal leen fa ba kere ngeen di fa jóge fépp fu leen nit ñi gàntoo génn leen ca dëkk booba te ngeen yëlëb seen pëndu tànk ngir seede leen seen réer noonu ñu dem dëkk ak dëkk di fa yégle xabaar bu baax bi tey wëral jarag yi bi erod boroom diwaanu galile déggee li yéesu ak ay taalibeem doon def lépp mu jaaxle ndaxte amoon na ñu doon wax ci mbiru yéesu naan yax yaxya moo dekki amit ñuy wax naan iliyaas moo dellusi ñeneen naan kenn ca yonent yu jëkk yaa dekki waaye erod ne yaxya man mii maa dagglu boppam kon kii may dégg ay jaloreem mooy kan noonu mu koy fexee gis bi ndaw dellusee ñu nettali yeesu lañu defoon lépp noonu mu yóbbaale leen ñu sori nit ñi jëm ca dëkk bu ñuy wax betsayda bi ko nit ñi yëgee ñu toppi ko yeesu teeru leen di leen wax ci mbirum nguuru yàlla te di wéral ñi ko aajowoo ca ngoon sa fukki taalibe ak ñaar ñëw ci yéesu ne ko yiwil mbooloo mi ñu dugg ci dëkk yi ak àll bi ko wër ngir am lu ñu lekk ak fu ñu fanaan ndaxte fii àllub neen la waaye yeesu ne leen jox leen leen lu ñu lekk ñu tontu ko ne amuñu lu dul juróomi mburu ak ñaari jën xanaa ndax ñu dem jëndal mbooloo mi lu ñu lekk ndaxte lu wara mat juróomi junniy góor a nga fa teewoon yeesu ne taalibe ya nee leen mbooloo mi ñu toog def ay géewi juróom fukki nit taalibe ya def ko toogloo nit ña bi loolu amee yeesu jël juróomi mburu yi ak ñaari jën yi xool ci kaw gërëm yàlla ba noppi mu damm leen jox taalibe yi ngir ñu seddale ko mbooloo mi noonu ñépp lekk ba suur bi ñu dajalee desit ya ñu feesal fukki pañe ak ñaar benn bés yeesu mbooloo ma di ñaan taalibe yi nekk ci wetam mu laaj leen ne nit ñi ku ñu wax ni moom laa ñu tontu ko ne am na ñu naan yaa di yaxya ñeneen ne iliyaas ñi ci des ne yaay kenn ci yonent yu jëkk yaa dekki yeesu ni leen yéen nag ku ngeen ni moom laa piyeer tontu ko ni yaa di almasi bi yàlla yónni noonu yéesu daldi leen dénk tere leen ñu wax ko kenn teg ci ne doomi nit ki war naa sonn lu bari saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya dëdd ko ñu rey ko mu dekk ci ñetteelu fan ba noonu yéesu ne leen ñoom ñépp ku bëgg aw ci samay tànk na bàyyi boppam gàddu bés bu nekk bant bi ñu ko war a daaj door topp ci man ndaxte koo xam ne bëgg nga rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ñàkk sa bakkan ngir man dinga ko jotaat ndaxte moom àddina sépp lu mu jariñ nit su fekkee ne dafay ñàkk bakkanam walla mu loru ku mënu sa faral te nanguwul samay wax doomi nit ki dina la rus a xam bés bu ñëwee ci ndamam ak ci ndamu baay bi ak lu malaaka yu sell yi ci dëgg maa ngi leen koy wax am na ñi fi taxaw ñoo xam ni duñu dee te gisuñu nguuru yàlla gi bi ñu ca tegee luy tolloog bés ginnaaw bi yéesu waxee loolu mu ànd ak piyeer yowaana ak saak yéeg ca kaw tund wa ngir ñaan bi muy ñaan xar kanamam daldi soppeeku ay yéreem weex tàll bay melax am ñaari nit di waxtaan ak moom mu yonenti yàlla musa ak iliyaas ñoo feeñ ci ndamu yàlla di waxtaane ci demu yéesu gi muy àggale yenam ci yerusalem fekk piyeer ak ni mu àndal doon gëmmentu waaye bi ñu yeewoo bu baax ñu gis ndamu yéesu ak ñaari nit ñu taxaw ci wetam bi nit ñooñu di sori yeesu piyeer ne ko kilifa gi bég nanu ci sunu teew fii nanu defar ñetti mbaar benn yow benn musaa ak benn iliyaas fekk xamul la mu doon wax bi mu koy wax niir ñëw muur leen taalibe yi daldi tiit bi leen niir wa ëmbe noonu baat jibe ca niir wa naan kii mooy sama doom ji ma déglu leen ko bibaat bi waxee ba noppi yéesu rekk des fa taalibe ya noppi bañ a nettali kenn ca jamono jooja lañu gisoon ca suba sa yéesu ak taalibe ya wàcce ca tund wa mbooloo mu bari ñëw di ko gàttandu nit xaacu ci biir mbooloo mi naan kilifa gi maa ngi lay ñaan nga seet sama doom ndaxte moom képp laa am léeg-léeg rab jàpp ko mu daldi yuuxu ca saasa rab wi di ko sayloo gémmiñ gi di fuur du faral di génn ci moom te dina ko sonal ñaan naa say taalibe ñu dàq ko waaye mënuñu ko Yeesu tontu ne yéen nit yi jamono ji yéen ñi gëmadi te dëng ba kañ laa wara nekk ak yéen te di leen muñal indil ma sa doom bi xale bi agsi rab wi di ko daaneel ci suuf muy say waaye yéesu daldi gëdd rab wa wëral xale ba daldi ko delloo baayam ku nekk waaru na ndax màggug yàlla bi ñuy yéemu ci li mu doon def yeesu ne taalibeem ya déglu leen bu baax lii ma leen di wax dinañu jébbal doomi ki ci loxoy nit ñi waaye taalibe ya xamuñu kàddu googu yàlla daf leen nëbb li muy tekki ba ñu bañ koo xam te ñimuwuñu koo laaj yeesu werante am ci biir taalibe yi ñuy laajante kan moo gën a màgg ci ñoom yéesu mi xam seen xalaat jël ab xale teg ci wetam ne leen ku nangu xale bii ci sama tur man mii nga nangu te ku ma nangu nangu nga ki ma yónni ndaxte ki gën a woyof ci yéen ñépp kooku moo gën a màgg bi loolu amee yowaane jël kàddu gi ne kilifa gi danoo gis nit kuy dàq ay rab ci sa tur ñu tere ko ko ndaxte bokkul ci nun waaye yeesu tontu ko buleen leen ko tere ndaxte ku la sotul far na ak yow bi jamono ji jegeñsee ji yéesu war a jóge àddina dem asamaan mu sigiñu ci dem yerusalem noonu mu yebal ay ndaw ñu jiitu ko ñu dem nag dugg ci ab dëkk ci diiwaanu samari ngir wutal ko fa fu mu dal waaye waa dëkk ba nanguwuñu ko ndaxte mi ngi jublu woon Yerusalem bi taalibe yi tudd saak ak yowaane gisee loolu ñu ne borom bi ndax danga bëgg nu ne ne safaras asamaan dal ci seen kaw faagaagal leen waaye yéesu walbatiku yedd taalibe ya ba noppi ñu daldi dem wuti beneen dëkk dem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 mu tontu ko ne bàyyil ni dee ñu suul seeni néew yow demal yégle nguuru yàlla keneen ne ko sang bi dinaa la topp waaye may ma ma jëkk tàggu ji sama waa kër yeesu ne ko kuy ji di gestu yeyewu la liggéey ci nguuru yàlla luk ginnaaw loolu borom bi tànn na yeneen juróom ñaar fukki taalibe ak ñaar yebal leen ñu ànd ñaar ak ñaar jiitu ji ko ca dëkk yépp ak ca barab yépp yamu naroon a dem moom ci boppam mu ni leen ngóob mi yaatu na waaye liggéeykat yi bariwuñu ñaan leen nag boroom ngóob mi mu yebal ay liggéeykat ñu góob toolam dem leen maa ngi leen di yónni mel ni ay mbote ci biir ay bukki bu leen yor xaalis walla mbuus walla ay dàll bu leen nuyu kenn ci yoon wi kër gu ngeen mën a dugg na ngeen jëkk ne na jàmm wàcc ci kër gi bu fa nitu jàmm nekkee seen yéene dina ko indil jàmm lu ko moy seen yéene dina dellusi ci yéen dal ci kër googa tey lekk ka naan lu ñu leen di jox ndaxte liggéeykat yelloo na jot peyam bu leen dem nag kër ak kër dëkk bu ngeen mën a dugg te waa dëkk ba teeru leen lu ñu leen jox lekk leen ko nangeen ngeen wéral jaragi dëkk ba te ngeen ne leen nguuru yàlla jege si ne leen waaye bu ngeen duggee ci dëkk te teeruwuñu leen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 te ku ma bañ bañ na ki ma yónni juróom ñaar fukki taalibe yi ak ñaar dellusi fees ak mbég te naan boroom bi rab yi sax déggal nañu nu ndax sa tur yeesu ne leen maa ngi doon seen seytaane wàcce asamaan ni safaraas melax gis ngeen jox naa leen sañ-sañu jóg ci jaan yi ak ci jiit yi daan doole bañaale bi te dara du leen mën a gaañ moo ne li leen rab yi déggal bu mu tax ngeen bég waaye bég leen ndax li ñu bind seen tur ci asamaan ca saa soosu xel mu sell mi feesal yeesu ak mbég mu daldi ne yow baay bi boroom asamaan ak suuf maa ngi lay sant ci li nga nëbb yëf yii ñi am xam-xam ak ñi am xel te xamal leen gone yi waaw baay bi ndaxte looloo la neex yéesu teg ca ne sama baay jébbal na ma lépp te kenn mënula xam man doom ji may kan ku dul baay bi kenn mënula xamit kan mooy baay bi ku dul man doom ji ak ku ma ko bëgg a xamal ginnaaw bi mu waxee loolu yéesu wëlbati ko ca taalibe ya ne leen ñoom rekk ñi seeni bët di gis li ngeen di gis am nañu mbég ndaxte maa ngi leen koy wax yonent yu bari ak buur yu bari bëggoon nañoo gis li ngeen di gis waaye gisuñu ko te dégg li ngeen di dégg waaye dégguñu ko noonu benn xutbakat daldi jóg ngir fexe fiir yeesu ne ko kilifa gi lan laa war a def ba am dund gu jeex yeesu ne ko lu ñu bind ci yoonu musaa lan nga ciy jàng nit ka ne ko nanga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp sa kàttan gépp ak sa xel mépp te it nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp yéesu ne ko nag li nga wax dëgg la boo defee loolu dinga dund ba faaw. waaye xutbakat ba bëggoon na am aw lay ne yeesu kan mooy sama moroom nag yeesu tontu ko ni dafa amoon nit ku jóge woon yerusalem jëm yeriko ay sàcc dogale ko futti ko dóor ko ba muy bëgg dee dem bàyyi ko fa foofu ab saraxalekat jaar ca yoon wa seen nit ka teggi benn waay it bu soqikoo ci giiru la wi aw ca barab booba seen waaja teggi waaye benn waay bu dëkk samari bu doon tukki ñëw ba jege waaja gis ko yërëm ko noonu mu ñëw diw ko diwlin ak biiñ ngir faj gaañu gaañu ya bandaas ko ginnaaw loolu mu teg ko ci mbaamam yóbbu ko ci fanaanukaay di ko toppatoo bi bët setee mu génne ñaari poseti xaalis jox ko boroom kër ga ne ko nanga toppatoo nit kooku bés bu ma fi jaaraatee dinaa la fay man ci sama bopp lépp loo ci dolli ci xaalis yéesu teg ca ne lu ciy sa xalaat kan ci ñett ñooñu moo jëfe ni kuy jëf jéme ci moroomam ba ñu gisee nit ka sàcc ya dogale woon xutbakat ba tontu ko ne xanaa ki ko woon yërmandeem yeesu ne ko nag demal tey def ni moom bi yéesu ak ay taalibeem nekkee ci yoon wi mu dugg ci benn dëkk fekk fa jigéen ju tudd màrt ganale ko màrt nag amoon na rakk ju tudd maryaama ma nga toog ci tànki boroom bi di déglu ay kàddoom fekk màrt jàpp lool ca waañ wa noonu mu ñëw ci wetu yéesu ne ko borom bi doo ci wax dara boo gisee sama rakk ji bàyyi ma ak liggéey bi yépp ne ko mu jàppale ma borom bi tontu ko ne màrt màrt yu bare ngi fees sa xol nga am ay téq-téq ndax loolu moo moona dey lenn rekk am solo maryaama dafa tànn ceer bi gën te kenn du ko nangu ci moom Luk saar fukk am bés yeesu di ñaan ci benn barab. bi mu noppee kenn ci taalibeem yi né ko. borom bi jàngal nu nan lanu war a ñaane ni ko yaxee jàngale ay taalibeem. yeesu ne leen. bu ngeen dee ñaan na ngeen ne. baay bi na sa tur sell na sa nguur ñëw. may na bus bu nekk li nu war a dunde baal nu sunuy bàkkaar ndaxte nun itam dañuy baal ñépp ñi ñu tooñ te bu nu teg ci yoonu nattu yéesu teg ca ne leen mi ngi mel ni nga dem seeti sa xarit ci xaaju guddi ne ko xarit lebal ma ñetti mburu dafa am sama xarit bu ma ganesi te awma dara lu ma ko jox waaye kooku nekk ci biir néegam dina ko tontu bu ma lakkal tëj naa bunt bi ba noppi te tëdd man ak sama njaboot mënuma jóg di la jox dara maa ngi leen koy wax su jógul jox ko li muy laaj ndax li ñu xaritoo it ndax la kee ñàkk jom dina tax mu jox ko lépp li mu soxla moo tax man ni ñaan leen ñu may leen seet leen te dingeen gis fëgg leen ñu ubbil leen ndaxte képp kuy ñaan dinga am kuy seet dinga gis kuy fëgg ñu ubbil la bu la sa doom ñaanee jën yow mi baayam ndax dinga ko bañ a jox jën jox ko jaan walla mu ñaan la nen nga jox ko jiit ndegam yéen ñi bon yéen a mën a jox seeni gune lu baax astemaak baay bi nekk ci kaw dina jox xel mu sell mi ñi ko koy ñaan am bés yeesu dàq rab wu luu naka la rab wa génn luu ba daldi wax ba mbooloo ma yéemu waaye am ca mbooloo ma ay nit ñu doon wax naan ci kàttanu belsebul buuru rab yi lay dàqe rab yi am ñeneen ñu fexe koo fiir ba laaj ko kéemaan gu jóge ci asamaan tey firndeel yonentam waaye yeesu xam seen xalaat ne leen réew mu xeex boppam tas kër gu xeex boppam gent te bu seytaane xeexee boppam naka la nguuram di mën a yàgge damay wax loolu ndaxte nee ngeen damay dàq rab jaalale ko ci kàttanu belsebul te bu fekkee ne man damay dàq ay rab ci kàttanu belsebul seeni taalibe nag ci gan kàttan lañu leen di dàqe kon ñoo leen di àtte waaye bu fekkee ne baaraamu yàlla laay dàqe rab kon nguuru yàlla agsi na ba ci yéen su nit ku bari doole gànnaayoo di wattu këram alalam dina raw waaye bu ko ko ëpp doole ñëwee daan ko dafay nangu gànnaay ya mu yaakaaroon ba noppi séddale alal ja ku farul ak man yaa ngi may xeex ku dajalewul ak man yaa ngi tasaare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 ba tax mu jug nit kooku mooy yées njaalbeenam bi yéesu di wax loolu jenn jigéen yëkkati baatam ci biir mbooloo ma ne cey jigéen ji la ëmb te nàmpal la moo barkeel waaye yeesu tontu ko ne neel kay ki barkeel mooy kiy déglu kàddu yàlla te di ko topp naka la mbooloo may gën a takku yéesu ne niti jamono ji dañoo bon ñu ngi laaj firnde waaye duñu jot genn firnde guddul firndeeg Yunus ndaxte ni Yunus nekke woon firnde ci waa dëkku Niniiv noonu la doomi nit kiy nekke firnde ci nit yi jamono jii keroog bés penc buur bu jigéen ba dëkkoon ca sud dina jógandoo ak nit jamono jii yey leen ndaxte dafa jóge ca cetul àddina ngir déglu xam-xamu suleymaan te ku sut suleymaan a ngi fi tey te bés penc waa dëkku Niniif dinañu jógandoo ak nit ci jamono jii yey leen ndaxte bileen leen Yunus waaree tuub nañu seeni bàkkaar te ko sut Yunus sa ngi fii kenn du taal làmp ba noppi di ko dugal ci kàmb walla di ci këpp leget daf koy wekk ngir mu leeral ñiy dugg bët mooy làmp yaram bu sa bët wëree kon sa yaram wépp leer waaye bu sa bët woppee kon sa yaram wépp lëndëm moytul ndax leer gi nekk ci yow du lëndëm kon bu sa yaram wépp nekkee ci leer gi te genn wet gu laal ci lëndëm dina leer nàññ mel ni leeraayu làmp ne ràyyi ci sa kaw bi yeesu waxee ba noppi benn pharisien wax ko mu ñëw lekke këram yeesu dugg ca kër ga toog ca lekkukaay ba pharisien bi nag daldi jaaxle bi mu gisee ne yéesu raxasuwul laata muy lekk noonu boroom bi ne ko waaw yéen pharisien yi yéen i ngi setal bitib kaas bi ak ndab li waaye ci biir dangeen a fees ak càcc ak mbon yéen a ñàkk xel xanaa ki defar biti moo defar biir itam saraxeleen li nekk ci biir te seen lépp dina sell yéen farisiyen yi dingeen torox ndaxte yéen a ngi sàkk asaka ci naana ak ruu ak lejum bu nekk waaye sàggane ngeen njubte ak mbëggeel ci yàlla loolu ngeen war a def waxuma nag ngeen sàggane la ca des yéen farisiyen yi dingeen torox ndaxte ca jàngu ya toogu ya féete kanam ngeen di taamu te bëgg ñépp di leen nuyoo ñaari loxo ca pénc ma dingeen torox ndaxte dangeen a mel ni ay bàmmeel yu raaf ba nit ñi di ci dox te teyuñu ko kenn ci xutbakat yi ne ca tonn ne kilifa gi boo waxee loolu yaa nga nuy xas nun itam noonu yéesu neeti leen yéen itam xutbakat yi dingeen torox ndaxte dangeen di sëf nit ñi say yu diis waaye du ngeen nangoo laal sëf bi sax ak seen cati baaraam dingeen torox ndaxte yéen a ngi tabax xabru yonent yi seeni maam reyoon dangeen di seede noonu ne ànd ngeen ak li seen maam defoon ndaxte ñoo rey yonent yi yéen ngeen tabax xabru yi loolu tax yàlla mi xam lépp ne dinaa leen yónnee ay yonent ak ay ndaw ñenn ñi dinañu leen fitnaal rey leen kon nag yàlla dina mbugal nit ci jamono ji ndax dereti yonent yi ñu tuur ba àddina sosoo ak léegi la dale ci abal ba ci sakariya moom mi ñu rey ci diggante saraxalukaay bi ak berab bu sell bi waaw maa ngi leen koy wax yàlla dina mbugal nit ci jamono ji ndax loolu yéen xutbakat yi dingeen torox ndaxte yéen a yóbbu caabi xam-xam dugg leen ci te ku ci bëgg a dugg ngeen tere ko ko bi yeesu génnee barab boobu farisiyen ya ak xutbakat ya ëmbal ko mer te di ko seetlu ci fànn gu nekk di ko yeeru bëgg këf waxam bu awul yoon Luk saar ñaar ginnaaw loolu naka la mbooloo ma dajaloo ba mat ay junni junni nit di tàncante yéesu tàmbalee wax jëmale ci taalibeem ya ne leen moytu leen lawiru pharisien ya li dinaa feq amul dara lu nëbbu lu ñu warula biral mbaa lu kumpa lu ñu warula siiwal looloo tax lu ngeen wax ci biir lëndëm des na ko dégg ci leer lu ngeen déey nit ci biir néeg des na ko yégle ci kaw taax yi maa ngi leen koy wax samay xarit bu leen ragal ñu mën a rey yaram ba noppi dootuñu mën a def dara dinaa leen wax nag ki ngeen war a ragal ragal leen ki nga xam ne bu reyee ba noppi am sañ-sañu sànni ca safara waaw maa ngi leen koy wax ragal leen kooku juróomi picc ramutu ndax duñu ko jaay ci ñaari dërëm moo na yàlla fàttewul benn ci ñoom seen kawari bopp sax waññees na leen kon bu leen ragal dara yéen a gën di raanu ràmmatu te maa ngi leen koy wax képp ku ma nangu ci kanamu nit ñi doomu nit ki dina la nangu ci kanamu malaaka yàlla yi waaye ku ma gàntu ci kanamu nit ñi dinañu la gàntu ci kanamu malaaka yàlla yi ku sosal doomu nit ki dinañu la baal waaye kuy sosal xel mu sell mi duñu la ko baal bu ñu leen yóbboo ca jàngu ya ca kanamu kilifa ya ak àttekat ya bu leen am xel ñaar ci li ngeen war a tontu ak nan ngeen war a tontoo walla lu ngeen war a wax ndaxte xel mu sell mi dina leen xamal ca waxtu woowa li ngeen war a wax am ca mboolama ku ne yéesu kilifa gi joxal ndigal sama mag mu sedd ma ci sunu ndono yeesu tontu ko ne sama waay kan moo ma fal àttekat ci seen kaw walla mu teg ma fi ma di leen sedd leel seen alal noonu mu ne leen ñoom ñépp ci leen bëggee ndaxte bakkanu nit ajuwul ci alalam ak lu mu baree bari noonu mu dégtal leen wii léeb ne dafa amoon waa ju bari alal te ay toolam nangu lool muy werante ci xelam naan nu ma war a def ndaxte amatuma fu ma dajale sama ngóob mi noonu mu ne nii laay def daaneel sama sàq yi defaraat yu gën a rëy ba man te dajale sama dugub ji ak sama am am jépp te dinaa kañ sama bopp ne yow mii am nga alal ju bare ju mën a dem ay ati at noppalal sa yaram di lekk di naan tey bég waaye yàlla ne ko ñàkk xel guddik tey des na jël sa bakkan kon li nga dajale lépp ku koy moom kiy dajale alal ngir boppam nag te amul dara ca kanamu yàlla lu mel nii moo lay dal noonu yéesu daldi ne taalibeem yi loolu moo tax maa ngi leen koy wax bu leen seen bakkan jaaxal ci li ngeen war a lekk bu leen jaaxle it ngir seen yaram ci lu ngeen war a sol ndaxte bakkan moo gën lekk te yaram a gën ko daay seet leen baaxoñ yi duñu ji duñu góob amuñu dencukaay amuñu sàq teewul yàllaa ngi leen di dundal tey ni ngeen ëppe maanaa picc yi anakan ci yéen ci kaw njaaxleem moo mën a yokk ab waxtu ci appam su fekkee lu tuuti loolu rekk mënuleen koo def kon lu tax ngeen di jaaxle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 te bu leen ci jaaxle ndaxte loolu lépp ñi xamul yàlla ñoo koy wut te seen baay xam na ne soxla ngeen ko waaye wut leen nguuram te loolu lépp dina leen ko ci dollil bu leen ragal dara yéen coggal ju ndaw ji ndaxte dafa soob seen baay mu jëgle leen nguuram jaay leen seen alal saraxe ko ngir sàkku ay mbuusi xaalis yu dul bënn maanaam alal ju dul jeex ca laaxira foofa sàcc du ko jege te max du ko yàq ndaxte fu sa alal nekk fala sa xol nekk itam takkuleen bu dëgër te bàyyi làmp yi tàkk mel leen ni ay surga yuy xaar seen njaatige buy jóge ca ceet ga ndax bu fëggee bunt ba ñu ubbil ko ca saa sa surga yooye seen njaatige fekkul ñuy nelaw ba mu agsee ñoo gën a yeyoo ngërëm ci dëgg maa ngi leen koy wax njaatige bi dina sol yérey waañ wax leen ñu toog lekk ba noppi indi leen ñam wi su fekkee seen njaatige ci xaaju guddi lay ñëw sax walla bu suuf seddee te fekk leen noonu surga yooyu ñoo gën a yeyoo ngërëm waaye xam leen lii bu boroom kër gi xamoon ban waxtu la sàcc bi di ñëw du ko bàyyi mu toj këram yéen itam taxaw leen jonn ndaxte doomu nit ki dina ñëw ci waxtu wu ngeen ko seenuwul piyeer ne yéesu borom bi ndax dangay dégtal léeb wii ngir nun rekk walla ngir mbooloo mépp borom bi tontu ko ne kan moo nekk surga bu takku te teey bu njaatigeem teg ci waa kër gi ngir mu leen di dundal ci jamono ji bu njaatigeem ñëwee te gis mu def noonu surga boobu dina am ngërëm ci dëgg maa ngi leen koy wax njaatige bi dina ko teg ci alalam jépp waaye su fekkee surga ba dani ci xelam sama njaatige day yeex a ñëw ba tax mu tàmbale doo surga ya ca des ak mbindaan ya di lekk te di naan di màndi kon njaatige ba dina ñëw ci bis bu mu ko seenuwul ak waxtu wu mu xamul dina ko dóor ay dóor yu metti jox ko añub ñi gëmul yàlla surga bi xam bëgg-bëggu njaatigeem te waajul mbaa mu takku def ko dinañu ko dóor dóor yu metti waaye surga bi xamul bëgg-bëggu géem te def lu yolloo ay dóor dinañu ko dóor dóor yu néew ku ñu jox lu bari des na la fayeku lu bari ku ñu dénk lu bari des na la laajaat lu ko ëpp dama ñëw ngir indi safara si ci àddina te bëgg naa xaar taal bi tàkk faw ñu sóob ma ci metit te ba looluy mat duma noppalu ndax dangeen a xalaat ne dama ñëw ngir indi jàmm ci àddina déedéet maa ngi leen koy wax dama ñëw ngir indi féewaloo ginnaaw si tey bu juróomi nit bokkee genn kër dinañu féewaloo ñett dinañu féewaloo ak ñaar ñi ci des ñaar ñi féewaloo ak ñett ñooñu baay bi dina féewaloo ak doom ji doom ji ak baayam ndey dina féewaloo ak doomam ju jigéen doom ju jigéen ji ak ndeyam goro dina féewaloo ak jabaru doomam jabaru nit ak goroom yéesu ne ci mbooloo ma bu ngeen gisee mu xiin ci sowu dangeen naan ca saasa dina taw te mooy am te bu ngeen yegee ngelaw liy uppe sudd ngeen ne dina tàng tàngaay wu metti te mooy am naafeq yi ngeen doon mën ngeen ràññee meloo asamaan ak suuf waaye lu tax mënuleen a ràññee li jamonoy léegi ji di tekki lu taxit du ngeen àttil seen bopp liy jëf ju jub bu la nit jiiñee dara ba ngeen ànd di dem ci àttekat ba nanga fexee juboo ak moom ci yoon wi lu ko moy dina la yóbbu ci yoon yoon jébbal la ca loxoy alkaati ba mu tëj la maa ngi la koy wax doo génn foofa mukk te feyuloo bi ci mujj ñett te jamono jooju ay nit ñëw ca yéesu nettali mbirum waa galile ya pilaat reylu woon jaxase seen deret ak dereti mala yi ñu rendi woon jébbal leen yàlla mu tontu leen ne mbaadu dangeen a xalaat ne waa galile yooyu dañoo gën a nekk bàkkaarkat ña ca des ndax coono bi ñu daj maa ngi leen di wax ne du dëgg waaye su ngeen tuubul seeni bàkkaar dingeen sànku noonu yéen ñépp itam te fukki nit ak juróom ñett ñooñu dee bi taaxum kaw ma ca goxu siliwe daanoo ci seen kaw ndax dangeen yaakaar ne ñoo gën a nekk ay tooñkat ñeneen ñi dëkk Yerusalem yépp maa ngi leen di wax ne du dëgg waaye su ngeen tuubul seeni bàkkaar dingeen sànku noonu yéen ñépp itam noonu mu daldi leen wax léeb wii nit amoon na ci toolam garab gu ñu naan figg benn bés mu ñëw di ko raasi fekk fa benn doom noonu mu ne surga ba ñettaate ngi may ñëw di raasi garab gi te duma ci fekk dara gor ko lu tax muy xatal tool bi surga ba tontu ko ne sang bi bàyyiwaat ko fi at mii dinaa wàqi taat wi def ci tos xëj na dina meññi bu ko deful nga gor ko benn bésu noflaay yéesoo ngi doon jàngale ci ab jàngu amoon na fa jigéen ju jàppoon ba feebar loo ko lu war a mat fukki at ak juróom ñett dafa xooge woon te mënul woon a siggi dara bi ko yeesu gisee mu woo ko ne ko soxna si sa feebar deñ na noonu mu teg ko ay loxoom soxna sa siggi ca saasa di màggal yàlla waaye njiitu jàngu ba mer ndax li yéesu fajoon nit ca bésu noflaay ba mu ne mbooloo ma am na juróom benni fan yu nit ñi war a liggéey kon war ngeen a ñëw faju ci bés yooyu waaye du ci bésu bi boroom bi bésu noflaay bi kenn ku nekk ci yéen du yiwwee ca gétt ga yëkkam walla mbaamam ngir wëggi ko jigéen ji nag bokk ci askanu Ibrahima te seytaane tënk ko fukki at ak juróom ñett ndax kenn waru ko yiwi ci bésu noflaay bi naka la wax loolu noonam yépp daldi ruus waaye mbooloo mi di bég ci jëf yu yéeme yi mu doon def yépp noonu Yeesu neeti lan la nguuru yàlla di nurool lan laa ko mën a méngaleel mi ngi mel ni doomu fuddën gu nit jël ji ko ci toolam mu sax nekk garab ba picc asamaan ñëw tàgg ci caram mu neeti lan laa mën a méngaleek nguuru yàlla mi ngi mel ni lawiir bu jigéen jël jaxase ko ak ñetti àndaari fariñ ba kere tooyal bépp di funki yeesu ngi doon jaar ci ay dëkk yu mag ak yu ndaw di jàngale te jublu yerusalem am ku ko ne boroom bi ndax ñiy mucc ñu néew lay doon yéesu ne leen def leen seen kem kàttan ngir dugg ci bunt bu xat bi ndaxte maa ngi leen koy wax ñu bari dinañu jéem a dugg waaye duñu ko man jamono dina ñëw ju boroom kër gi di jóg tëj buntam dingeen nekk ci biti di fëgg naan borom bi ubbil nu dina leen tontu ne xamu fu ngeen bokk bu ko defee dingeen tàmbalee naan noo doon bokk di lekk ak di naan te jàngale nga ci sunuy pénc waaye dina ne nee naa leen xawma fu ngeen bokk yéen ñépp sori leen ma defkati lu bon yi foofa dingeen jooy di yeyu bu ngeen gisee seeni maam ibrahima isaaxa yanqooba ak yonent yépp ci nguuru yàlla te ñu dàq leen ca biti ay nit dinañu jóge penku ak sowu noor ak sud ñëw bokk lekk ci ñam yi yàlla di joxe ci nguuram noonu ñenn ci ñi mujj ñooy jiitu ji te ci ñi jiitu ñooy mujj ca jamono jooju ay farisiyen ñëw ci yéesu ne ko jógal fii dem feneen ndaxte erod a ngi lay wut rey noonu mu ni leen dem leen ni bukki boobu ne ko xoolal maa ngi dàq rab yi tey wéral nit ñi tey ak suba te ñetteelu fan ba màgg fa ma yàlla jëmale waaye faw ma dox sama ite tey suba ginnaaw suba ndaxte wéreesu la reyee ab yonent feneen fu dul yerusalem yerusalem yerusalem yow miy rey yonent yi te sànni ay doj ndaw yi ba ñu dee aka ma bëggoon a say doom ni ginaar di wuufe ay cuucam te nanguwu leen kon nag yàlla dina bërgël seen kër te maa ngi leen koy wax du ngeen ma gisati ba kere ngeen ne yow miy ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga Luk saar benn bésu nooflaay Yeesu dem ca këru benn kilifaak yi ngir lekke fa nit ñaa ngi ko doon xool bu baax faf am ca kanamam nit ku feebaroon ay tànkam niwi yéesu yëkkati baatam ne xutbakat ya ak farisiyen ya ndax jaadu na nu faj ci bésu nooflaay bi waaye ñépp ne cell yéesu daldi laal jarag ja faj ko ba noppi ne ko mu ñibbi ginnaaw loolu mu ne leen ku sa doom walla sa yëkk daanu ci teen ndax doo dem génne ji ko ca sa fekk sax bisub noflaay la amuñu woon dara lu ñu ciy teg yéesu gis ni gan yi doon tànne toogu yu yiw yi mu daldi leen wax léeb wi bu ñu la wooyee ci xewu ceet bul jël toogu bu yiw mën naa am woo nañu it nit ku la ëpp daraja kon ki leen woo yéen ñaar ñépp mën naa ñëw ci yow ne la joxal toog bi nit kii noonu dinga rusa dem ca toogu bu ginnaawe ba waaye bu ñu la wooyee demal ca toogu bu ginnaawe ba bu ko defee ki woo bu agsee ne la sama xarit àggal ca kaw loolu dina la sagal ci ñi nga toogandool ci lekkukaay bi ndaxte képp ku yëkkatiku des na la suufeel te kuy suufeelu dinañu la yëkkati noonu yéesu ne ko woo woon lekk boo dee woote añ walla reer bul woo rekk say xarit say doomi ndey say mbokk walla say dëkkandoo yu am alal lu ko mooy ñooñu itam dinañu la woo fay la bor bi waaye boo dee woote lekk wóol néew doole yi làgg yi lafeñ yi ak gumba yi soo ko defee dinga barkeel ndaxte duñu la ko mën a fey waaye dinga jot sak pey bés bi ñu jub di dekki bi mu déggee wax yooyu kenn ca ganee na yeesu kiy lekk ci ñam yi yàlla di joxe ci nguuram barkeel nga yeesu tontu ko ne dafa amoon nit ku togguloo ay ñam woo ay nit ñu bari bi waxtu lekk jotee mu yónni surga ca ña muy ganale fàttali leen man ngeen a ñëw ndaxte lépp sotti na léegi waaye ñu tàmbali di jéggulu ci ngan gi ñoom ñépp ku jëkk ka ne ko dama jënd tool léegi te faaw ma dem seeti ko maa ngi lay ñaan nga jéggal ma keneen ne dama jënd léegi fukki yëkk te damay dem nii jéem leen a beyloo ba xam maa ngi lay ñaan nga jéggal ma keneen ne ko damay soog a takk jabar looloo tax duma mën a ñëw surga ba dellu ca njaatigeem nettali ko loolu lépp noonu boroom kër ga mer daldi ne surga ba demal gaaw ca pénc ya ak ca mbedd ya ca dëkk ba te indil ma fii néew doole yi ñu làggi ñi gumba yi ak lafañ yi surga ba ñëwaat ne ko sang bi def naa li nga ma sant waaye barab bi feesul noonu njaatige ba ne ko génneel dëkk bi te dem ca yoon ya ak ca tool ya xiir nit ñi ñu dugg si ngir sama kër fees maa ngi leen koy wax ci ñi ma woowoon ci sama reer bi kenn du ci ñam am mbooloo yu rëy yu toppoon ci yéesu ba muy dem ca yoon wa mu geesu na leen képp ku ñëw ci man te gënalu ma ko baayam yaayam jabaram ay doomam ay magam ak ay rakkam walla sax bakkanam du mën a nekk sama taalibe képp koo xam ne nanguwuloo ñàkk sa bakkan ba mel ni ku ñu daaj ci bant te nga topp ma doo mën a nekk sama taalibe su kenn ci yéen bëggee tabax taaxum kaw ndax du jëkk toog xalaat ñaata la ko war a dikke ngir seet ba xam ndax am na xaalis bu mën a àggale liggéey bi lu ko mooy su yëkkatee fondement bi te mënu koo àggale ñi koy gis dinañu ko ñaawal naan ko waa ji dafa tàmbalee tabax waaye mënu koo àggale walla boog ban buur mooy dugg ci xare ak beneen buur te jëkkul a toog seet ba xam moom ak fukki junniy xarekat mën naa xeex ak kii ñëw ak ñaar fukki junniy xarekat su ko mënul dafa yónni ndaw ca beneen buur ba fii ak ma ngay sori ngir ñu jiboo naka noonu itam ku nekk ci yéen bu dëdduwul li mu am lépp du mën a nekk sama taalibe xam ngeen nag ne xorom lu baax la waaye bu sàppee nan lañu koy delloo cafkaam du jariñ suuf te du nekk tos dañu koy sànni ca biti déglul bu baax yow mi am ay nopp Luk saar ak juróom ay juutikat ak ay boroom bàkkaar daan jigéen ci yeesu ngir déglu ko farisiyen ya ak xutbakat ya di ñurumtu naan waa ji mi ngi nangoo nekk ak ay boroom bàkkaar ak alekandoog ñoom noonu yeesu daldi leen wax léeb yi ne leen kan soo amoon téeméeri xar te benn réer ci nooy def ndax doo bàyyi ca parlukaay ba juróom-ñeent fukki xar ya ak juróom-ñeent toppi ma réer ba gis ko te boo ko gisee dinga ko gàddu ak bànneex yóbbu ko kër ga boo àggee ca kër ga dinga woo say xarit ak say dëkkandoo ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama xar ma réeroon maa ngi leen di wax lii ci noonule dina am mbég ci asamaan bu benn bàkkaarkat tuubee ay bakkaaram te mbég moomu mooy ëpp mbég mi fay am ngir juróom ñu jub te soxla tuub seeni bàkkaar te it bu jigéen dencoon fukki libidoor benn réer ca nu muy def ndax du taal ab làmp bale kër ga seet fu nekk ba gis ko bu ko gisee dina woo ay xaritam ak ay dëkkandoom ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama alal jëreeroon maa ngi leen di wax lii ci noonu la malaaka yàlla yi di amee mbég ci benn bàkkaarkat bu tuubee ay bàkkaaram yeesu dellu ne leen dafa amoon góor gu am ñaari doom benn bis caat ma ne baay ba baay dama bëggoon nga jox ma li may war a féetewoo ci ndono li noonu baay ba daldi leen seddale alalam ay fan yu néew ginnaaw gi caat ma fab yëfam yépp dem ca réew mu sori yàq fa alalam ci topp nafsoom bi mu sànkee alalam jépp xiif bu metti dal ca réew ma mu tàmbalee ñàkk mu dem nag di liggéeyal ku dëkk ca réew ma kooku yebal ko ca ay toolam ngir mu sàmm mbaam xuux ya mu xiif ba bëgg a lekk ca ñamu mbaam xuux ya ndaxte kenn mayu ko dara mujj xelam dellusi mu ne sama baay am na ay surga yu bari te dañuy lekk ba suur man nag maa ngi fii di bëgg a dee ak xiif damay jóg dem ci sama baay ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeeyatumaa nekk sa doom boole ma ci say surga mu daldi jóg jëm kër baayam waaye bu muy sorandi kër ga baayam séen ko yërëm ko daldi daw laxasu ko fóon ko doom ja ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeyeetumaa nekk sa doom waaye baay ba na ay surgaam gaaw leen indi mbubb mi gën a rafet solal ko ko te ngeen roof ab jaaro ci loxoom te solal ko ay dàll indi leen sa luwu duufa te rey ko nu lekk te bànneexu ndaxte sama doom ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na noonu ñu tàmbalee bànneexu fekk booba taaw baa nga woon ca tool ya bi mu ñewee ba jub kër ga mu dégg ñuy tëgg di fecc mu daldi woo kenn ci surga ya nag laaj ko lu xew mu tontu ko sarak moo dellusi te sa baay rey na sa luwu duuf wa ndaxte ñibbisi na ci jàmm ci kaw loolu taaw ba daldi mer bañ a dugg ca kër ga baayam daldi génn ngir ñaan ko mu dugg waaye taaw ba tontu baayam ne ko seetal ñaata at laa la liggéeyal mel ni jàmm te musuma mooy sa ndigal waaye yow musuloo ma may sax teef ngir ma bànneexu man ak samay xarit waaye bi sa doom ji dikkee moom mi yàq sa alal ci ndoxaan reyal nga ko sa luwu duuf wi noonu baay bi tontu ko ne ko sama doom yaa ngi ak man bés bu nekk te li ma am lépp yaa ko moom waaye war na noo bànneexu te bég ndaxte sa rakk ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na Luk saar fukk ak ay taalibeem benn boroom alal moo amoon bëkk néeg bu ñu jiiñ ne dafay pasar pasare alal ji waaje woo ko ne ko li may dégg ci yow mooy lan leeralal ma ni nga liggéeye ak sama alal ndaxte dootoo nekkati sama bëkk néeg bëkk néeg bi di xalaat naan nu may def nag segam sama njaatige dafa may dàq ci liggéey bi mu ma joxoon dem bàyyi awma kàttanam yalwaani ruus naa ko xam naa ni may def ba su ma ñàkkee sama liggéey ay nit fat ma noonu mu daldi woolu kenn ku nekk ca ña ameeloon njaatigeem bor ka jëkka ñaw mu ne ko ñaata nga abel sama njaatige mu ne ko téeméeri ngi diwlinu oliiw bëkk néeg ba ne ko sa kayit a ngi toogal fii gaaw te bind juróom fukk mu neeti keneen yow nag ñaata nga ko ameel mu ne ko téeméeri saakuy pepp bëkk néeg ba ne ko sa kayit a ngi bindal juróom ñett fukk njaatige ba nag daldi naw ni bëkk néeg bu njubloŋ boobu muuse woon ndaxte ñi bokk ci àddina ñoo gën a muus ci li ñu jote ci seen diggante ak seeni moroom baraw ñu bokk ci leeru yàlla yéesu teg ca ne maa ngi leen di wax lii sàkku leen ay xarit jaare ko ci alelu àddina ngir bu alal nekkatul ñu mën leen a fat ca dal yu sax ya nit ku maandu ci yëf néew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 yoonu musaa wi ak waxi yonent yi ñu ngi fi woon ba kere yaxe di ñëw la ko dale foofa nag yégle nañu xabaar bu baax bi ci nguuru yàlla te ñépp a ngi góor góorlu ngir dugg ci waaye nag asamaan si ak suuf si jóge fi moo gën a yomb randal wenn rëdd ci arafu yoonu musaa ku fase sa jabar ba noppi takk keneen njaaloo nga te ku takk jigéen ju jëkkëram fase njaaloo nga dafa amoon boroom alal ju sol yére yu rafet te jafe tey dund bis bu set dund gu neex fekk miskiin mu ñuy wax lasaar daan tëdd ci buntu këram fees dell ak ay góom te bu sañoon di lekk ci desiti ñam wi rot ci lekkukaayu boroom alal ji xaj yi sax daananu ñëw di mar ay góomam noonu miskiin ma dee malaaka yu yóbbu ko ca wetu Ibrahima boroom alal ja itam dee ñu suul ko bi ñu koy mbugal ca safara mu téen seen fu sori Ibrahima ak lasaar ci wetam noonu mu yuuxu ne maam Ibrahima yërëm ma yebalal lasaar mu sëpp cetul baaraamam ci ndox seralal ma sama làmmiñ ndaxte maa ngi sonn lool ci safara si Ibrahima ne ko sama doom fàttalikul ne jot nga sa bànneex ci àddina fekk lasaar dëkk ci tiis looloo tax xolam sedd fii yow nag ngay sonn raxte dolli itam am na kàmb gu xóot suñu diggante ak yéen ba tax ñi bëgg a jóge fii jëm ci yéen walla ñi bëgg a jóge foofu jëm si ci nun duñu ko man noonu boroom alal ja ne kon nag maam maa ngi lay ñaan nga yebal lasaar ca sama kër baay ndaxte am naa fa juróomi rakk naleen leen ngir ñu bañ a ñëw ñoom itam ci barabu metit wii Ibrahima ne ko say doomu baay ñu ngeeg yoonu Musaa ak téere yonent yi nanu leen déggal boroom alal ja ne ko déedéet maam Ibrahima waaye su kenn dekkee dem te ñoom dinañu tuub seeni bàkkaar waaye Ibrahima tontu ko ne suñu dégluwul Musaa ak yonent yi kon ku dekki sax du tax ñu gëm Luk saar fukk ak juróom ñaar waxaat ay taalibeem ne leen fiir yu yóbbe nit bàkkaar mënta ñàkk waaye toroxte dal na ki koy lal ñu takk doj wu réy ci baatam sànni ko ci géej moo gën ci moom muy daaneel ci bàkkaar kenn ci ñi gën a tuuti ci ñii wattu leen seen bopp bu sa mbokk tooñee yedd ko bu réccoo baal ko te su la tooñee juróom ñaari yoon ci bés bi te ñëw ci yow juróom ñaari yoon ne la tuub naa ko nanga ko baal ndaw ya wax borom bi ne ko yokkal sunu ngëm borom bi tontu ne su ngeen amee ngëm gu tuuti sax niw pepp fuddën kon dingeen mën a ne garab gi bu deekul dem jëmbatu ca géej ga te dina def li ngeen wax kan ci bu amoon surga bu beyi walla bu sàmmi ba ñëw ndax dafa ko naa kaay lekk déedéet xanaa kay da ko naan defaral ma reer bi takkul te tibbal ma ba ma lekk te naan ba noppi nga door a lekk te naan li surga ba topp ndigal ndax tax na mu yelloo ngërëm déedéet noonu yéen itam bu ngeen toppee li ñu leen sant lépp ba noppi dangeen a war ne ay surga rekk lanu sunu warugar lanu def bi muy dem yerusalem ba tey yéesu jaar ci digg wi xaajale samari ak galile bi muy jub benn dëkk fukki gaane ñëw dogale ko ñu taxaw dànd ko di wax ca kaw naan yéesu kilifa gi yërëm nu naka la leen yéesu di gis naan leen dem leen woon seen bopp saraxalekat ya bi ñuy dem ñu daldi set kenn ci ñoom gis ne wér na daldi dëpp di màggal yàlla ak baat bu xumb mu dëpp jëm ci tànk yéesu di ko gërëm fekk nitu samari la woon noonu yéesu daldi ne xanaa du fukki yépp a wér ana juróom ñeent ne nag amul kenn ci ñoom ku ñëw gërëm yàlla ku dul doxandeem bi noonu yéesu ne ko jógal dem sa faj na la farisiyen yi laaj yeesu ne ko kañ la yàlla di tëral nguuram mu tontu leen ne bu yàlla di wàcce nguuram ci nit ñi kenn du ko mën a teg bët duñu mën a wax ne xool mi ngi fii walla ma nga fële ndaxte nguur yàlla wàcc na ci seen biir noonu mu ne taalibe ya jamono dina ñëw fu ngeen di bëgg a gis su doon sax benn fan ci jamono ju doomu nit ki di ñëw waaye du ngeen ko gis des na leen ne mi ngi fii walla ma nga fële bu leen dem mbaa ngeen di leen topp ndaxte ni melax naan ràyye ci asamaan di leeral gii wet ba ca gee noonu it la doomu nit ki di mel ci bésam waaye balaa booba faw mu sonn lool te nit yi jamono ji dëddu ko la xewoon ci bési nooyin dina xewaat ci bési doomi nit ki nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jël jabar ak a séy yi ba bés ba nooyin duggee ca gaal ga noonu mën ma ñëw rey leen ñoom ñépp dina mel it ni la xewoon ca bési loot nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jënd ak di jaay di ji ak di tabax waaye bés ba Lot génnee Sodom yàlla tawloo safara ak tamarax rey leen ñoom ñépp noonu lay mel bés bu doomu nit kiy feeñ ca bés boobee ku nekk ca kaw kër ga te ay basagam nekk ca biir bu mu wàcc jëli leen te it ku nekk ca tool ya bu mu ñibbi fàttaliku leen jabaru loot kuy wuta rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ko ñàkk dinga dund maa ngi leen koy wax ca jamono jooju ñaar dinañu bokk a tëdd guddi des na yóbbu kenn ki bàyyi ka ca des ñaari jigéen dinañu wolandoo des na yóbbu kenn ki bàyyi ka ca des taalibe yi ne Yeesu fu di xewee borom bi yeesu leen ne fa nekk la tan daje luk saar fukk ak noonu yeesu wax leen itam léeb wii ngir xamal leen ne war nañoo sax ci ñaan te bañ a xàddi nee na dafa amoon ci dëkk benn àttekat bu ragalul yàlla te faaliwul mbindeef amoon na itam ca dëkk ba jigéen ju jëkkëram faatu ju daan faral di ñëw ci moom naan ko àtte ma ak sama noon àttekat ba bañ lu yàgg waaye am bés mu ne ci xelam ragaluma yàlla te faalewuma mbindeef waaye jigéen ji lakkal na ma kon dinaa ko àtte ngir mu bañ a tee ñëw sonal ma di ma rey ak ay wax bi tegaat ca ne leen bu baax li kër bu bon boobu wax ndax yàlla du àtte jub mbooloo mi mu tànn te ñu koy ñaan walla guddi ak bëccëg ndax dina leen xaarloo maa ngi leen koy wax dina leen àttee jub ci lu gaaw waaye bu doomu nit ki ñëwee ndax dina fekk ngëm ci àddina Yeesu wi nit ñi foog ne jub nañu te xeeb ñi ci des mu ne dafa amoon ñaari nit ñu dem ca kër yàlla ga di ñaan kenn ki ab pharisien la ki ci des juutikat pharisien baa nga taxaw di ñaan ci xelam naan yow yàlla maa ngi lay sant ci li ma melul ni ñeneen ñiy sàcc di def lu jubadi te di njaaloo rawatina juutikat bii ay bés gu nekk damay woor ñaari yoon di joxe asaka ci lépp lu ma wut juutikat ba moom ma nga taxaw fu sori te bëggula sigi sax xool ci asamaan waaye ma ngay fëgg dënnam te naan yow yàlla yërëm ma man mi bàkkaarkat yéesu teg ca ne maa ngi leen koy wax nit kooku ba muy ñibbi këram moom la yàlla àtte ni ku jub waaye du pharisien ba ndaxte képp ku yëkkatiku des na la suufeel te kuy suufeelu ñu yëkkati la amoon na ay nit ñuy indil yéesu ay liir ngir mu teg leen ay loxoom bi taalibe ya gisee loolu ñu gëdd leen waaye yeesu woo leen ne bàyyi xale yi ñu ñëw ci man te bu leen leen tere ndaxte ñi mel ni ñoom ñoo yelloo nguuru yàlla ci dëgg maa ngi leen koy wax ku woyeful ni xale nangu nguuru yàlla doo ci mën a dugg benn njiitu yawut laaj yeesu ne ko kilifa gu baax gi lu ma war a def ba am wàll ci dund gu dul jeex yéesu tontu ko lu tax nga wooye ma ku baax yàlla rekk a baax xam nga ndigal yi bul njaaloo bul boom bul sàcc bul seede lu dul dëgg teral sa ndey ak sa baay njiit la ne ko loolu lépp sàmm naa ko li dale ci sama ndaw ba tey bi yeesu déggee loolu mu ne ko lenn rekk moo la dese jaayal li nga am lépp seddale ko miskin yi te dinga woomle ca asamaan boo noppee nga ñëw topp ci man bi nit ka déggee loolu mu am tiis ndaxte ku bari woon alal la yéesu xool ko daldi ne boroom alal dugg ci nguuru yàlla lu jafe ngoogu giléem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb boroom alal dugg ci nguuru yàlla ñi doon déglu daldi ne kon nag ku mën a mucc yeesu tontu ne li të nit ñi tewul yàlla noonu piyeer ne nun de dëddu nanu li nu am lépp topp la yéesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax képp ku dëddu kër walla jabar walla ay doomi ndey walla ay waajur walla ay doom ngir nguuru yàlla dinga am tey ji ay yooni yoon ak dund gudul jeex ëllëg yéesu wéetoo ak fukki taalibe yi ak ñaar ni leen nu ngi dem yerusalem te li yonent yi bindoon lépp ci mbirum doomu nit ki dina mat dinañu ko jébbal ñi dul yewuut ñu ñaawal ko saaga ko tifli ci kawam ginnaaw bu ñu ko dóoree ay yar ba noppi dinañu ko rey waaye ca ñetteelu fan ba dina dekki waaye taalibe ya dégguñu li mu leen doon wax kàddu yooyu ump na leen te xamuñu li wax yeesu yooyu tekki bi yeesu di agsi dëkku yeriko am gumba gu toogoon ca wetu yoon wa di yalwaan naka la gumba ga dégg mbooloo mi di jàll mu laaj lan moo xew ñu wax ko ne yeesum nasaret moo fay jaar noonu mu yuuxu ne yéesu sëtu daawuda yërëm ma ñi jiitu woon gëdd ko ngir mu noppi waaye muy gën a yuuxu naan sëtu daawuda yërëm ma noonu yéesu taxaw santaane ñu indil ko ko bi jigesee yeesu laaj ko ne loo bëggoon ma defal la ko mu ne ko sang bi dama bëgg a gis noonu yéesu ne ko na say bët gis sa ngëm faj na la ca saa sa mu daldi gis noonu mu topp ci yéesu di màggal yàlla mbooloo mépp gis loolu di sant yàlla yéesu dugg na yeriko jaar ca dëkk ba di dem waaye amoon na fa waa ju ñuy wax sase njiitu juutikat la te di ku bari alal bëgg naa gis kan mooy yéesu waaye dafa gàtt lool ba mënu koo gis ndax mbooloo ma noonu mu daw jiitu ji ca yoon wa yéeg ci genn garab ngir gis yeesu ndaxte foofa la naroon a jaar bi yeesu dikkee ba tolloo garab ga nag mu téen ne ko saase wàcceel gaaw ndax tey sa kër laa war a dal saase daldi gaawantu wàcc ganale ko ak mbég ñépp gis loolu di ñurum ñuru mi naan mi ngi dal ci këru boroom bàkkaar waaye saase taxaw ne borom bi déglul borom bi dogu naa may sama genn wàllu alal miskin yi te lu ma masa njubl ak nit jël alalam dinaa ko fay ñeenti yoon lu ni tollu yeesu ne ko mucc gi wàcc na tey ci kër gi ndaxte nit kii ci askanu Ibrahima la bokk itam ndaxte doomu nit ki ñëw na ngir seet musal ni réer bi nit ñi doon déglu kàddu yooyu Yeesu teg ca léeb ndaxte jege woon na yerusalem te ñoom foogoon nañu ne nguur yàlla dafay daldi feeñ ca saasa mu ne nag dafa amoon boroom juddu bu rafet bu demoon ci réew mu sori ngir ñu fal ko buur te mu dellusiwaat noonu mu woo fukk ci ay surgaam jox ku nekk benn libidoor ne leen liggéey leen ci ba may ñibbisi waaye waa bëgguñu ko noonu ñu yónni ndaw ci ginnaawam ne bëgguñu nit ki yilif nu bi ñu ko falee buur nag ba mu dellusi mu woolu surga ya mu joxoon wurus wa ngir xam nan lanu ci liggéeye ku jëkk ko ñëw ne ko sang bi sa libidoor bi jur na fukki libidoor buur ba ne ko def nga lu baax surga bu baax nga segem wone nga ne takku nga ci lu tuuti falul ci fukki dëkk surga ba ca topp ñëw ne sang bi sa libidoor ba indi na juróomi libidoor buur ba ne ko yow falul ci juróomi dëkk keneen ñëw ne sang bi sa libidoor baa ngi nii dama ko fasoon ci sekkiit denc ko dama la ragaloon ndaxte ku néeg nga dangay nangu loo dénkaaniwul di dajale loo jiwul buur ba ne ko ci say wax laa lay àtte surga bu bon bi xamoon nga ni nit ku néeg laa di nangu lu ma dénkaanewul te dajale lu ma jiwul lu tax nag yóbbuwoo sama xaalis ca denckati xaalis ya bés bu ma ñëwee nag ma mën a jot sama xaalis ak la mu jur ci kaw loolu mu ne ña taxawoon ca wetam nangu leen libidoor bi ci moom jox ko boroom fukki libidoor yi ñu ne ko sang bi am na fukki libidoor ba noppi buur ba ne leen maa ngi leen koy wax ku am dinañu la dolli waaye ko amul li nga am as néew sax dinañu ko nangu waaye sama noon yi ñi bëggul woon ma doon seen buur indi leen fii rey leen ci sama kanam bi mu waxee loolu ba noppi yéesu dafa daldi jiitu jëm yerusalem bi muy jege dëkki betfase ak betani ci wetu tund wi ñuy wax tund olivier yéesu yebal ñaar ci ay taalibeem ni leen demleen ci dëkk bi ci kanam bu ngeen fa duggee dingeen fa gis cumbur gu kenn musula war yiwi leen ko indi bu leen kenn laajee lu tax ngeen koy yiwi tontu leen ko borom bi da koo soxla ñaari ndaw ya dem fekk mbir ya deme na leen ko yéesu waxe woon bi ñu yiwi cumbur ga nag ay boroomam ni leen lu tax ngeen di yiwi ci gi ñu tontu ne ndaxte borom bi da koo soxla noonu ñu indil ci gi yéesu daldi lal seeni yére ca kaw yéegal ca yéesu bi muy dem nit ñi di lalal yéesu seeni yére ci yoon wi bi ñu agsee fa mbartalum tund olivier doore taalibeem yépp fees ak mbég tàmbalee màggal yàlla ca kaw ndax kéemaan yu bari yi ñu gis ñu ngi naan yow buur bi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga na jàmm am ca asamaan te ndam li féete ca barab yu gën a kawe waaye ay farisiyen yu nekkoon ca mbooloo ma ne yéesu kilifa gi yeddal sa taalibe yi noonu mu tontu ne maa ngi leen koy wax bu ñu noppee ñoom doj yi xaacu bi yeesu jegee dëkk ba ba ko mu jooy ko naan ca yow itam boo xamoon bisub tey yi la mën a indil jàmm waaye fi mu ne mënuloo koo gis bés dina ñëwi yu say noon di jàll wërale la dinañu la tëj ci biir tànc la dinañu la yàqaate yow ak sa waa dëkk dootul des ci kaw ci yow ndaxte ràññeewoo jamono ji yàlla ñëwe wallu la ginnaaw loolu yeesu dugg ca kër yàlla ga daldi dàq ña fay jaay naan leen mbind mi nee na sama kër këru ñaan ci yàlla lay doon waaye yéen def ngeen ko këru sàcc bés bu nekk yéesu di jàngale ca kër yàlla ga saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ñoom ak njiiti xeet wa ñu ngi ko doon wuta reylu waaye xamuñu woon lan lañu mën a def ndaxte nit ñépp a ngi ko doon déglu bañ benn baat raw leen benn bis jàngal nit ña ca kër yàlla ga di leen yégal xabaar bu baax bi saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ak njiit ya ñëw ne ko wax nu ci ban sañ ngay defe yëf yii walla kan moo la may boobu sañsañ sañ yéesu tontu leen ne man itam dinaa leen laaj lenn waxleen ma la Yaxya daan def di sóob nit ñi ci ndox fu mu ko jëlee ci yàlla walla ci nit ñi ñuy waxtaan ci seen biir naan bu nu nee ci yàlla dina laaj lu tax gëmuleen ko kon te bu nu nee ci nit ñi mbooloo mépp dinañu nu sànni ay xeer ndaxte gëm nañu ne Yaxya yeneent la woon noonu ñu tontu ne xamuñu fu mu ko jële yéesu ne leen kon man itam duma leen wax ci ban sañ-sañ laay defe yëf yii noonu yéesu daldi wax nit ñi léeb wii amoon na nit ku jëmbat toolu reseñ batale ko ay beykat dem tukki tukki bu yàgg bi tool bi ñoree nag mu yónni surga ci ñoom ngir jot wàllam ci meññeef gi waaye baykat yi dóor ko ay yar dàq ko mu dellu ak loxoy neen mu yónniwaat beneen surga ñu dóor ko moom itam toroxal ko dàq ko mu dellu ak loxoy neen mu yeneeti ñetteelu surga ñu gaañ ko dàq ko boroom tool bi daldi ne nan laay def nag dinaa yónni sama doom sama reeni xol xej na ñu wek ko moom waaye bi baykat yi gisee doom ji ñu ne ci seen biir kii moo war a doon tool bi nan ko rey moom donoo li ñu génne ko tool bi nag rey ko noonu yéesu laaj leen nu leen boroom tool bi di def nag xanaa ñëw rey baykat yooyu dénk tool ba ñeneen bi yeesu waxe loolu nit ña ne ko yàlla tere waaye yéesu ne leen jàkk daldi ne kon nag lu baat yi ci mbind mi di tekki doj wa tabaxkat ya sànni mujj na di doju koñ képp ku dal ci doj woowu damutoo te ku mu dal ci sa kaw rajaxe la xutbakat ya ak saraxalekat yu mag ya ñu ngi doon wuta jàpp yéesu ca taxawaay ba ndaxte xam nañu ne ñoo tax muy wax léeb woowu waaye ragal nañu mbooloo ma noonu ñu koy yeeru daldi yónni ay nit ñu mbubboo njub sas leen ñu fexe ko jàpp ci ay waxam ngir jébbal ko boroom réew mayor kilifteef ak sañ-sañ ñu daldi ñëw ci yéesu ne ko kilifa gi xam nañu ne li ngay wax te di ko jàngale lu jub la amuloo parlàqu waaye dangay xamle yoonu yàlla ci bu wóor wax nu ndax caadu na nu fay buur bi sesaar galak walla déet waaye yeesu xam na seen pexe ne leen won ma posetu denariyon kan lañu ci def nataalam ak turam ñu tontu ko sesaar noonu mu ne leen jox leen nag sesaar li sesaar moom te jox yàlla li yàlla moom noonu mënuñu ko woona jàpp ci waxam ci kanamu mbooloo ma ñu waaru ci tontoom ba wedam noonu ay nit ñu bokk ci sadduseen yi ñëw ci moom sadusiyen yi nag ñoom wedd nañu ndekkite li noonu ñu laaj ko ne kilifa gi musaa bindal nañu ne ku magam faatu te bàyyiwul doom ak jabaram kooku war naa donn jigéen ji ba yëkkati giiru magam amoon na fi nag juróom ñaari góor ñu bokk ndey baay taaw ba takk jabar faatu te bàyyiwul doom ñaareel ba takk jigéen ja def noonu ak ñetteel ba ba juróom ñaar ñépp faatu te bàyyiwuñu doom gannaaw ga nag jigéen je faatu ci ndekkite li nag kanti ñoom moo war a donn jigéen ja fekk ku nekk ci juróom ñaar ñi mas na koo takk yeesu tontu leen ne ci àddina si góor ñi ak jigéen ñi dañuy sey waaye ña ñu àtte ne nañoo bokk ci dundu ëllëg ak ci ndekkite li kenn du am jabar kenn du am jëkkër dafa fekk ne mënatuñoo dee ndaxte dañuy mel ni malaaka yi ay doomi yàlla lañu ndaxte doomi ndekkite lañu te musaa sax wone na ne neew yi dinañu dekki ci saarum garab si foofa musaa wooye na fa borom bi yàllaay ibraayima yàllaay isaaxa di yàllaay yanqooba kon nag nekkul yàllaay ñi dee waaye yàlla ñiy dund la ndaxte yàllaa tax ñépp di dund ci kaw loolu ay xutbakat ne ko li nga wax dëgg la kilifa gi ndaxte kenn ci ñoom ñimeetu ko laaj dara noonu yeesu leen lu tax nit ñi di wax ne almasi bi mooy sëtu daawuda ndaxte daawuda moom ci boppam moo ni ci sabóor boroom bi nee na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam gannaaw daawuda nag wooye na ko boroom bi nu muy nekke sëtam bi ko nit ña fa nekkoon ñépp doon déglu yeesu ne ay taalibeem moytu leen xutbakat yi dañoo bëgg di doxantu sol ay mbubb yu rëy te ñépp di leen nuyoo ñaari loxo ci pénc mi ci jàngu yi toogu yu féete kanam lañuy wut te toogu yu yiw lañuy taamu ci reeri xew yi ñu ngi lekk alalu jigéen ñi seen jëkkër faatu di ñaan yàlla ay ñaani ngistal yu gudd seen mbugal dina gën a tar Luk saar ñaar fukk ak noonu yeesu siggi seen ay boroom alal ñuy dugal seen sarax ca ndab ya ca kër yàlla ga mu gis itam jenn jigéen ju jëkkëram faatu te mu ñàkk ju fa def ñaari poseti xànjar noonu mu daldi ne ci dëgg maa ngi leen koy wax jigéen ju ñàkk jee moo ëpp ñeneen ñépp lu mu joxe ñoom ñépp dañu sàkku ci seen barele waaye moom dafa sàkku ci néewleem ba joxe xaalis bi mu wara a dunde noonu ay nit doon wax ci lu jëm ca kër yàlla ga ak ni ñu ko rafetale ak ay doj yu jafe ak alal ju ñu jébbal yàlla waaye yeesu ne leen li ngeen gis fii lépp jamono dina ñëw joo xam ne dina daanu ba doj dootul des ci kaw doj ñu laaj ko ne kilifa gi kañ la loolu di am te luy tegtal ne looloo ngi waaj xew yéesu tontu ne moytu leen kenn nax ndaxte ñu bari dinañu ñëw ci sama tur ne moom laa walla ñu naan jamono ji jegesi na bu leen topp ñooñu bu ngeen déggee ay xare ak ay réew yu jóg wattu leen tiit ndaxte faw yooyule jëkk a am waaye taxul mu mujjug jamono daldi taxaw noonu mu teg ca ne xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew dina xeex ak meneen réew suuf dina yëngu yëngu yu rëy te wopp ak xiif dina am ci barab yu bari dina amit ay xew-xew yu raglu ak ay firnde yu mag yu jóge asamaan waaye balaa looloo xew des na leen jàpp fitnal leen di leen jébbal atekat yi ca jàng ya tëj leen kaso des yóbbu ci kanam ay buur ak ay boroom réew ndax sama tur loolu dina leen ubbil bunt ba ngeen man maa seedeel fasleen leen yéene bañ a wut lay ngir musal seen bopp ndaxte man ci sama bopp maa leen di jox kàddu ak xel moo xam ni seeni noon duñu ko mën a teggi mbaa ñu di ko weddi seeni waajur sax ak seeni doomi ndey seeni mbokk ak seeni xarit dinañu leen jébbal àttekat yi ba ñu rey ñenn ci yéen te ñépp dinañu leen bañ ndax sama tur waaye seen genn kawar sax du neen seen muñ moo leen di musal bu ngeen gisee ay xarekat wër dëkku Yerusalem xam leen ni jamono ji ñu koy yàq agsi na kon nag ku nekk ci biir diwaanu Yude nanga daw ca tund ya ku nekk ci biir dëkk bi nanga ko génn te ku nekk ca tool ya bul dugg ca dëkk ba ndaxte ci bis yooyu yàlla dina fay jëf yi te li ñu bindoon ci téereb yàlla dina mat ngala jigéen ñi ëmb ca bis yooya ngala it ñiy nàmpal ndaxte tiis wu metti dina am ci réew mi te yàlla dina wàcce meram ci waa réew mi des na leen reye ak i jaas yi jàpp leen jaam yóbbu leen ci réew yi àddina sépp te ñi dul yawut dinañu nappaaju yerusalem ba kere jamono yi ñi dul yawut mat ay firnde dinañu feeñ ci jant bi ci weer wi ak ci biddiw yi ci kaw suuf xeet yi dinañu tiit jaaxle ndax riiru géej gi ak yëngu-yëngub duus yi bu boobaa nit ñi xëm ndax tiitaange bu ñuy xalaat musiba yi nar a wàcc ci àddina ndaxte dees na yëngal kàttani asamaan noonu dinañu gis doomu nit ki di ñëw ciw niir ànd ak kàttan ak ndam lu rëy bu mbir yooyu di tàmbalee xew nag boo yeboo ngeen siggi teen ndaxte seen njot jubsi na noonu yeesu misaal leen lii xool leen garabu figg ak yeneen garab yi bu ñu gisee ñu sëq soxlawu leen kenn wax leen ne nawet bi jub si na xaat noonu itam bu ngeen gisee loolu lépp xew xam leen ni nguuru yàlla jege na ci dëgg maa ngi leen koy wax niti jamono ji duñu wey te loolu lépp amul asamaan ak suuf dinañu wey waaye samay wax du wéy mukk moytuleen leen seen nafsu diigal leen ci yàqute ak ci màndite ak itey àddina ba bés boobu betti leen ni mbaal ndaxte dina dal ci ñépp ñi nekk ci kaw suuf yeewu leen di sax ci ñaan ngir ngeen mën a mucc ci loolu lépp war a xew te mën a taxaw ak kóolute ci kanamu doomu nit ki yéesoo ngi daan yendoo jàngale ca kër yàlla ga te bu guddee mu dem ca tund wu ñuy wax tund olivier fanaan fa te nit ñépp dañu daan teele xëy ca kër yàlla ga di ko déglu Luk saar ñaar mburu ya amul rewiir jege woon na te ñu di ko wax bisu jéggi ba saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya di wut pexeem rey lu yeesu ndaxte dañoo ragaloon nit ña noonu seytaane daldi solu yuda mi ñuy wooye iskariyo te mu bokkoon ci fukki taalibe ya ak ñaar noonu yuda dem waxtaani ak saraxalekat yu mag ya ak kilifay wattukati kër yàlla ga ba xam nan la leen di jébbale yeesu ñu am ca bànneex bu réy di ko xaalis yuda nangu di fexe jamono jumu leen mën a jébbal yéesu fu mbooloo ma nekkul bésu màggalu mburu ya amul lawiir agsi ca bés boobu lañu waroon a rendi mbote màggalu jéggi ba noonu yéesu yebal piyeer ak yowaana ne leen dem leen defaral nu reeru jéggi ba ñu ne ko fan nga bëggoon ñu defare ko fa mu ne leen bu ngeen duggee ca dëkk ba góor gu yenu njaq lu def ndox dina taseeg yéen topp leen ci moom ba ca kër ga muy dugg te ngeen ni boroom kër ga kilifa gi nee na ana néegu gan bi may lekke reeru jéggi ba man ak samay taalibe noonu dina leen woon néeg ba féete kaw te yaa ñu defar ko ba noppi foofa ngeen koy defare ñu dem gis lépp ni leen ko Yeesu noonu ñu defar reer bi bi waxtu wi jotee Yeesu toog ak ndaw yi ni leen yàkkamti woon naa lool lekk ak yéen reeru jéggi bii laata ñu may sonal ndaxte maa ngi leen koy wax dootuma ko lekk mukk lu ba kera mu mat ci nguuru yàlla noonu mu fab kaas daldi sant yàlla ne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 ni leen kaas bi mooy misaal kóllëre gu bees gi yàlla fas jaalale ko ci sama deret ji tuuri ngir yéen waaye nag loxoob ki may wor a ngi nekk ak man ci ndab li doomu nit ki mu ngi dem ni ñu ko dogale waaye ki koy wor dina torox noonu taalibe yi di laajante ci seen biir kant ñoom mooy nara def loolu taalibe yi it di werante ngir xam kan ci ñoom moo gën a màgg yeesu ne leen yi xeeti àddina dañu leen di dóor yetti nguur te kilifa yi dañuy sàkku ngërëm waaye yéen bu leen def noonu ki gën a màgg ci yéen na nekk ni ki gën a ndaw te njiit mel ni surga ki toog ca lekkukaay ba moom ak surgaam ñoom ñaar kan moo ci gën a màgg xanaa du ci toog ci lekkukaay bi waaye man maa ngi ci seen biir ni surga yéen nag yéene ñi ànd ak man ci samay fitna man nag jox naa leen sañ-sañu nguuru ni ma ko sama baay joxe dingeen lekkandoo te naanandoo ak man ci sama nguur te dingeen toog ci jal yi di àtte fukki giir ak ñaar yu bànni Israyel. Yeesu teg ca ne simon seytaane ñaan na ñu jébbal leen ko ngir mu teqale leen ni ñu teqalee dugub ak xatax waaye man ñaanal naa la ngir sa ngëm dëgër te yow boo dellusee nanga dëgëral sa mbokki taalibe yi piyeer ne ko borom bi àttan naa ànd ak yow ca kaso ba ci dee sax yéesu tontu ko ni piyeer maa ngi la koy wax balaa ganaara sab tey jii dinga weddi ñetti yoon ne xam nga ma noonu yeesu ne leen ba ma leen yebalee te leen woon xaalis mbuus walla dàll ndax ñàkkoon ngeen dara ñu tontu ne déedéet mu neeti leen léegi nag képp ku am xaalis na ko jël te ku am mbuus na ko jël ku amul jaasi na jaay mbubbam jënde ko jaasi ndaxte maa ngi leen koy wax lii mbind mi wax faw mu am ci man bi mu nee boole nañu ko ak ñu bon ña ndaxte loolu jëm ci man mi ngi mat noonu taalibe yee ne ko boroom bi ñaari jaase ngi mu ne leen doy na noonu yeesu génn dem ca tundu olivier ni mu ko daan defe naka jekk taalibeem ya topp ci moom bi mu egsee ca barab ba mu ne leen ñaan leen ngir bañ a daanu ci fiir noonu mu dànd leen ba fu aw saan mën a toll daldi sukk di ñaan ne baay soo ko bëggee tegil ma kaasu naqar bii moona bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am noonu malaakam yàlla daldi koy feeñu may ko doole ci biir tiis yéesu gën a sawar ci ñaan gi ñaqam mel ni lumbi deret dal ci suuf bi mu ñaanee ba noppi mu jóg dellusi ci taalibe yi fekk leen ñuy nelaw ndaxte seen xool dafa sonnoon ak tiis noonu mu ne leen lu tax ngeen di nelaw jóg leen ñaan ngir bañ a daanu ci fiir bi yeesu di wax mbooloo mu bari agsi ku ñuy wax yuda te mu bokkoon ci fukki ndaw yi ak ñaar jiite leen yuda jigéen ci yéesu bëgg koo fóon waaye yeesu ne ko ci fóon ngay jébbale doomu nit ki ay noonam bi ñi àndoon ak yeesu gisee liy bëgg a xew ñu ne borom bi ndax nu jaasi kenn ci ñoom nag dóor surgab saraxalekat bu mag ba noppu ndejooram dagg waaye yeesu daldi ne bàyyi leen mu laal nopp waaja wéral ko noonu yeesu ne saraxalekat yu mag ya ak kilifay wattukat yi kër yàlla ga ak njiiti xeet wa ko jàpp si woon jóg ngeen gànnaayoo jaasi ak yet mel ni ñuy topp sàcc moona maa nga woon ak yéen bis bu nekk ca kër yàlla ga te jàpp leen ma waaye léegi seen waxtu la di jamonooy lëndëm ñu jàpp yéesu yóbbu ko ca kër saraxalekat bu mag ba piyeer topp fu sore amoon na taal ca diggu ëtt ba ay nit toog wër ko piyeer itam toog ci seen biir ab mbindaan gis ko mu toog taal bi di ko leeral mu ne ko jàkk ne nit ki itam àndoon na moom waaye piyeer weddi ko ne soxna si xawma kooku nees tuuti keneen gis ko ne yow itam ci ñoom nga bokk piyeer tontu ko sama waay bokkuma ci bi ñu tegee lu mat waxtu keneen dikkaat ca wax ja ne ci lu wóor nit ki àndoon na ak moom nde galile la jóge waaye piyeer ne sama waay xawma li ngay wax bi kàddoom di daanu faf ginaar daldi sab noonu borom bi gestu xool piyeer te piyeer fàttaliku la ko borom bi waxoon ne balaa ginaar a sab tey jii dinga ma weddi ñetti yoon piyeer daldi génn di jooy jooy yu metti saar ba juróom benn nit ñaa nga jàppoon yéesu di ko ñaawal ak di ko dóor ñu ngi takkoon ay bëtam di ko laaj naan ko yow wax nu ci kàddug yàlla ku la dóor ñu ngi ko doon yeneen yeneeni saaga bi bët setee kuréelu njiiti xeet wa maanaam saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya daldi daje indi yéesu ci seen kanam ñu ne ko soo dee almasi bi wax nu ko mu tontu leen ne su ma leen ko waxee du ngeen ma gëm te su ma leen laajee du ngeen tontu waaye ginnaaw si tey doomu nit ki dina toog ci ndajooru yàlla aji kàttan ji noonu ñépp ne kon nag yaay doomu yàlla ji mu tontu leen ne yéen ci seen bopp wax ngeen ne moom laa ñu daldi ne nag lu ñu doyati seede léegi ndegam nun ci sunu bopp noo ko nangoo ci gémmiñam Luk saar ñaar loolu kuréelu àttekat ya yépp daldi jóg yóbbu yeesu ca pilaat foofa ñu tàmbalee di ko sosal naan fekk nañu nit ki muy fàbbi sunu réew di leen tere fay galak te mi ngi teg boppam almasi maanaam buur noonu pilaat laaj ko ndax yaa di buuru yawut yi yeesu tontu ko ne wax nga ko pilaat ne saraxalekat yu mag ya ak mbooloo ma gisuma genn tooñ ci nit kii waaye ñu sax ci seeni wax naan mi ngi jógloo mbooloo mi di jàngale ci réewu yawut ya mépp li dale ci galile ba fii bi pilaat yégee baat yooyu mu laajte ne ndax nit ki galile la dëkk bi mu yégee ne yeesu ngi nekk ci diwaan bi erod yilif mu yónnee ko erod mi nekkoon ci jamono jooju ci yerusalem bi erod gisee yéesu mu am mbég mu rëy bu yàgg ba tey daf ko bëggoon a gis ndaxte déggoon na ñuy wax ci ay mbiram te yaakaaroon na ne dina ko gis mu def kéemaan noonu mu laaj ko ay laaj yu bari waaye yeesu tontuwul dara saraxalekat yu mag ya ak xutbakat yaa nga fa woon di ko jiiñ bu metti noonu erod ak ay xarekatam toroxal yeesu di ko ñaawal ginnaaw loolu mu solal ko mbubb mu rafet delloo ko pilaat erod ak pilaat dañoo ñi bañante woon bu jëkk waaye ci bés booba doon nañu ay xarit pilaat daldi woo saraxalekat yu mag ya njiit ya ak mbooloom yawut ya ne leen indil ngeen ma nit kii ne ma day jàdduloo yoon mbooloo mi léegi nag man mi laaj naa ko ci seen kanam waaye gisuma tooñ ci moom ak li ngeen koy jiiñ lépp erod itam gisul tooñ gu mu def ndegam mu yónneewaat nu ko nit ki deful genn tooñ gu jar ñu koy rey kon nag dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko waaye ñu bokk di yuuxu ñoom ñépp naan reyal kii te bàyyi barabaas dañoo tëjoon barabaas ndaxte dafa jéem a tas dëkk ba te rey nit pilaat waxaat ak mbooloo ma ndaxte dafa bëggoon a bàyyi yeesu waaye ñu yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee pilaat ne leen ñetteel bi yoon lu tax gantooñ la def gisuma ci moom dara lu jarde kon dinaa ko dóorlu ay yar te bàyyi ko waaye ñoom ñu sax ca lañu waxoon di gën a yuuxu naan ñu daaj ko ci bant coow la yey pilaat mujj gi pilaat dogal ñu defal leen li ñu bëgg mu bàyyi leen ki ñu ko ñaanoon kooku ñu tëjoon kaso ndax tas réew ma ak rey nit waaye mu jébbal leen yéesu ci seeni loxo bi ñuy yóbbu yeesu ñu jàpp ku ñuy wax simon te mu dëkk sireen ku jóge ca wet ga féete ak tool ya sëf ko bant ba ñuy war a daaj yeesu ngir mu gàdd ko topp ci moom mbooloo mu bare nga ko toppoon te jigéen ñu bare ngi doon yuuxu di ko jooy yéesu daldi wëlbatiku ca ñoom ne yéen jigéenu yerusalem bu leen ma jooy jooy leen seen bopp ak seeni doom ndaxte jamono dina ñëw ju ñu naan jigéen ñi musula jur ak ñi musula nampal barkeel ngéen bu keroogee nit ñi dinañu tund yi daanu leen ci sunu kaw te naan jànj yi su leen nu ndaxte suñu defee nii garab gu tooy gi lu ñuy def garab gu wow gi yóbbaale nañu itam ñeneen ñuy ñaari defkati lu bon ngir rey leen bi xarekat yi agsee ba ca barab ba ñuy wooyee kàngu bopp ñu daaj fa yeesu ca bant daajaale ñaari defkati lu bon ya kenn ca ndeyjooram ka ca des ca càmmoñam ci kaw loolu yéesu ne baay baal leen ndaxte xamuñu li ñuy def xarekat ya tegoo ay bant yéreem ngir séddoo ko mbooloo maa nga fa taxaw di setaan njiit ya di ko reetaan naan musal na ñeneen na musal boppam su fekkee mooy almasi bi ki yàlla fal xarekat ya it di ko ñaawal ñu jege si jox ko bineegar te naan su fekkee ne yaay buuru yewut yi musalal sa bopp ñu daaj mbind mu tiim ko naan kii mooy buuru yewut yi kenn ca defkatu lu bon ya ñu wekkoon ci bant di ko xas naan ko xanaa du yow yaay almasi bi musalal sa bopp te musal nu waaye ka ca des yedd morom ma naan ko xanaa ragaloo yàlla yow mi ñuy mbugal ni moom nun yelloo nanu sunu mbugal waaye moom deful dara noonu mu ne yéesu fàttalikuma boo dellusee ci sa nguur yéesu tontu ko ne ci dëgg maa ngi la koy wax tey jii dinga texe ak man ca jataayu yàlla noonu digg bëccëg daldi jot jant ba nëbbu réew mépp daldi lëndëm këruus lu mat ñetti waxtu rido barab bu sell ba ca kër yàlla ga daldi xarñaar yéesu woote ak kàddu gu dëgër naan baay jébbal naa la sama ruu bi mu waxe loolu mu delloo ruuwam yàlla bi njiitu xare ba gisee li xewoon mu màggal yàlla ne dëgg-dëgg nit ki ku jubla woon nit ña fa dajaloo woon ñépp di seetaan li xew ba ñu gisee loolu ñu dellu seen kër fëgg seen dënn di jooy xame yeesu yépp ak jigéen ña ko toppe woon galile dand leen di xool li xew nit ku ñuy wax yuusufa dem ca pilaat mi ngi dëkk arimaate ca diwaanu yudde yuusufaa nga bokkoon ca kuréelu àttekat yi nit ku baax la woon te jub te àndul woon ci li ñu dogaloon te jëf ko da doon séentu nguuru yàlla mu dem ca pilaat laaj ko néewu yeesu ginnaaw loolu mu wàcce ko ca bant ba laxas ko ci càngaay dugal ko ci bàmmeel bu ñu yett ci doj te musuñu ca def kenn fekku bésu waajal la woon te bésu noflaay baa ngi doon tàmbali jigéen ña gunge woon yeesu galile ànd ak yusufa gis bàmmeel ba ak nañu ca dence néewu yeesu ba noonu ñu dellu defari cuuraay ak laj ngir néew ba ca bisu noflaay ba ñu noppalu ni ko yoon wi santaane Luk bés bu jëkk ca ayu bés ga jigéen ñi jóg ca fajar dem ca bàmmeel ba ñu ngi yoroon cuuraay lu ñu defaroon bi ñu agsee ñu fekk ñu bëreŋ doj wa uboon bàmmeel ba ñu dugg ca bàmmeel ba waaye fekkuñu fa néewu borom bi yeesu noonu ba ñu nekkee ak seen jaaxle am na ñaar ñu leen feeñu sol yére yuy melax jigéen ñi am tiitaange ju mag daldi dëpp seen jë ci suuf waaye ñu ne leen lu tax ngeen di seet kiy dund ci biir néew yi nekkatu fi dekki na fàttaliku leen la mu leen waxoon ba mu nekkee galile woon na faw ñu jébbal doomi nit ki bàkkaarkat yi ñu rey ko ci bant mu dekki ci ñetteelu fan ba noonu ñu daldi fàttaliku kàddu yeesu ya bi ñu jógee bàmmeel ba ñu dem nettali ji loolu lépp fukki ndaw yi ak benn ak ña ca des ñépp jigéen ñi ñoo doon maryaama magdala saan ak maryaama yaayu saak yeneen jigéen yi leen gunge woon itam nettali loolu ndaw ya waaye ñu teg wax jooju ay jeneer ba gëmuñu jigéen ñooñu waaye piyeer daldi jóg daw dem ca bàmmeel ba bi mu àggee mu sëgg yër gisu lu dul càngaay la noonu mu dëpp ñibbi jaaxle lool ci li xew ca bés boobu ñaar ci taalibe yi di dem ci dëkku emawus te mu sori yerusalem ci lu mat fukki kilomètre ñu waxtaane li xewoon lépp bi ñuy waxtaan ak a sottante xalaat yeesu ci boppam dab leen ànd ak ñoom fekk seeni bët muuru ba mënuñu ko woon a xàmmi yeesu ne leen lan ngeen di waxante nii ci yoon wi noonu ñu taxaw seen xol jeex kenn ci ñoom ki tudd kleopaas né ko xanaa yow rekk yaa ñëw yerusalem te umple li fi xewoon bés yi yeesu ne leen lu fi xew ñu tontu ko ne mbirum yeesum nasaret ab yonent la woon bu doon def ay jëf yu mag di wax ay kàddu yu am doole ci kanamu nit ñi ak ci kanamu yàlla waaye sunuy saraxalekat yu mag ak sunuy njiit ñoo ko jébbal nguur gi ngir ñu àtte ko teg ko dee ba daaj ko ci bant nun nag danoo yaakaaroon ne mooy ki nara jot Israyel waaye bi loolu xewee ak léegi tele ñetteelu fan bi teewul nag am na ay jigéen yu bokk ci nun yu nu jaaxal dañoo fajaru ca bàmmeel ba waaye fekkuñu fa néewam ñu dellusi nettalinu ne ay malaaka feeñu nañu leen yëgal leen ne mi ngi dund ñenn ci suñu àndandoo yi dem nañu ca bàmmeel ba fekk lépp mel na ko jigéen ñi waxe woon waaye moom gisuñu ko noonu yeesu ne leen yéen daal yéen a ñàkk xel te seen xool yeex a gëm li yonent yi yégle woon xanaa du almasi bi dafa waroon a daj boobu coono te dugg ci ndamam noonu mu tàmbali ca yonent yàlla musaa ba ci yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram bi ñuy jub dëkk ba ñu jëmoon nag yéesu def ni kuy jubal yoonam waaye ñu téye ko ne ko toogal fii ci nun ndaxte jant baa ngi so te léegi mu guddi noonu mu dugg toog ca ñoom bi ñu tàmbalee di reer yéesu jël mburu ma gërëm yàlla ba noppi damm ko jox leen ko bi mu defee loolu lépp leer ci seeni bët ñu daldi ko xàmmi waaye yéesu ne mes gisatuñu ko noonu ku nekk naan sa moroom ndax sa xol seddul woon bi muy wax ak nun ci yoon wi te muy tekki mbind mi ñu daldi jóg ca saasa dellu yerusalem fekk fa fukki ndaw ya ak benn ak yeneeni taalibe ñooñu ne leen dëgg la borom bi dekki na te feeñu na Simon ñaari taalibe ya ñoom it daldi leen nettali la xewoon ca yoon wa ak ni ñu xàmmee Yeesu bi mu dammee mburu ma bi ñaari taalibe ya wax noonu Yeesu taxaw moom ci boppam ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen ñu daldi tiit foog ne dañoo gis njuuma waaye yeesu ne leen lu tax ngeen jaaxle ak lu tax ngeen di xel ñaar ci seen xol xool leen samay loxo ak samay tànk man mii la laal leen ma te xam njuuma amul yaram walla ay yax ñu ngeen gise ma am ko bi mu leen waxee loolu mu won leen ay loxoom ak ay tànkam waaye ba tey mënuñu woon a gëm ndax seen mbég ak jaaxle noonu yéesu laaj leen ne ndaxam ngeen fii lu ñu lekk ñu jox ko dogu jën wu ñu lakk mu jël ko lekk ci seen kanam noonu mu ne leen bi ma nekkee ak yeen waxoon naa leen baat yi li ñu bind lépp ci samay mbir ci yoonu Musaa ak ci téere yonent yi ak ci sabuur dafa war a am noonu mu ubbi seen xel ngir ñu xam li mbind mi di wax mu ne leen faaw almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan ba ni ñu ko bindee te it ñu yégle xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla baal leen yéenay samay seede te man dinaa leen yónnee li sama baay dige yéen nag toog leen ci dëkk bi ba ñu sol leen doole ji jóge ci kaw ginnaaw loolu yeesu yóbbu leen ca wetu betani foofa mu yëkkati ay loxoom barkeel leen bi mu leen dee barkeel mu tàggoo ak ñoom yàlla yéege ko asamaan taalibe ya màggal ko daldi dellu yerusalem fees ak mbég foofa daawu ñu jóg ca kër yàlla ga di gërëm yàlla